Ah! bismillahirrahmanirrahim rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki julli mbokki yi mbok ñu top ci seen eh, télévision Lamp Fall ci sen jotay bi di jess Jazboul Mouride ñi ci waxtane mam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Mouridina eh, di len santaat bu baax baax te di len jaajeufal bu baax gannaaw bu ñu ziaré ak ñaanal sunu yaakar Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi Serigne Touba Cheikhul Khadim sun borom dolli ko fa yagal bu baax baax eh, ta dolli ko wër ba lépp mu naalal Serigne Touba yalla nako yalla yalla nako na yeggale ba sumu yeneene naal te non mur yëpp nu ànd ko ak mom diko ñaanal bu baax baax waaye di ko ñaanal sunu jàmbaar ji di sëñ Amdi Fall Moodu Mbend di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi lool te dolli ko wér ba lépp lum naalal maam mu yeggale ko ba sumb yeneen i naal te nun muru yëpp nu ànd ko ak moom waaye di ziar bu baax a baax mboolem sëti Serigne Touba yi mboolem seexi Serigne Touba yëpp mboolem taalib yëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar bu baax a baax a baax jël nuyoo yi ak ziar yëpp nag teg ko ci loxol mboolem ñi nga xamante ne bii ñu ngi ñu topp ci seen eh, télévision Lamp Fall xam ngeen ne Jazbul Murid moom Euh, murid yi amuñu ci sago ndax maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina mi nga xam ne moo ñu wonoon ku tedd ki Serigne Touba euh, Cheikhul Khadim waaye jàngal nu itam naka lañ koy euh, roye wala naka lañ koy liggéeyale loolu moo waral xam ngeen ne jotaay bu jot ñu am yéene ak rek ànd koog yéen waaye ànd koog nag mboolem ñi nga xam ne ay borom yi lañ te seen xam itam ñu nangu ko bu wér ndax xam maam Cheikh Ibrahima waaye xam na ñuy def ba mën koo waxtaanee ba murid yëpp mën a mën a mën a séq mën a def doxaat ay jéego jëmaat ci. jëmm ju tedd jooju xool nan la ñuy ànd ànd ak moom ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim eh, di santaat bu baax nag jotaay yi fi jot a jaar ku ci mel ne Serigne Bousra Samb di ko ñaanal bu baax sunu wayjur sama borom defal ko tawfeex bu baax a baax waaye sunu baay Serigne Mbaye Ngiraan di jàmbaar loolu moom Serigne Mor Mbaye Cissé nga xam ne émi jotaay yu am solo la waaye tey nag ñu am nag eh, kenn ci gëstukat yi di ndaw di jàmbaar lool nekk nag ci dëkk yi nga xam ne Cheikh Ibra sancoon na ko mu jéego ak tànkam bii ngir fekk fa mag ñi nga xam ne ñii Cheikh Ibra yaroon seen i baay ñii Cheikh Ibra leen ñi maam ñi maam ñi maam Cheikh yar leen tarbiya ñu baree baree bari mu waxtaan ak ñoom am te nag lu mu téye lu wér tey nag indi woon ko ci penc mi ngir fas yéene ko waxtaanee moo tax thème bi tey dañoo fas yéene waxtaanee maam Cheikh Ibrahima Fall ak mag ñi. maam Cheikh Ibrahima Fall ak mag ñi bàyyi seex Ndaw lay lan di sëtu Baye Cheikh Ndaw lañ invité tey ngir mu delloo ñu ci groupe bu njëkk ba. ñi nga xam ne Cheikh Ibra leen tarbiya ndax boo xoolee mbooleem koo xamante ne bii rek joxoon nañ la Cheikh Ibra ca ba ngay ndaw wala ñu joxoon la ko ca wu bu njëkk ba rek ba ci kuta catégorie gu mujj gi itam ñu ci baree baree bari saa su ne ci seeni i jotaay Cheikh Ibra nee na ma rek nga daa dégg Cheikh Ibra nee na ma loolu nag lañ fa yéene indi tey ci penc mi ngir waxtaane ko dañuy bàyyi mu nuyoo ak bokk yi ñuy seetaan ñu dalal ko su ko defee nag door a nag taal di ci waxtaan bi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci bu tedd ba di sant borom Touba mi nga xam ne duñ jóg mukk ci di ko sant di yeesal ak jaayante ak kóllëre goo xam ne ci maam Cheikh Ibrahima Fall xamdan wa sukran li seyxinaa wa wasilatinaa wa kulliyatinaa waxunaa waxanaa barke borom Touba mi dog suñ digganteeg jëng yi ak jahannama wa ahmaduhu ala baabihi wa baabina fiihi qudwatina maam cheikh ibrahima faal aji àgg ji wa ala abil muridina wa qaiduhum a cheikhu ibrahima faal muhji la muhji li sawi lakyaasi wa lan faal wa tarda an baabil muridina maha cheikh ibra faal manil masaaya jamaha bàjju bi téeñu téeñ ba yanu yan ba mel nik njamal ba wuññi mbooti bamba maam làmp bàyyub murid yi sa jaam bi xëy na tey dikk maay mhm. ki noppee wax lu dul sa mbaax gi doy sëkk gën gi gën gi nga gën tey nangu njaam te dib sang làmp sëy na bu maam njaay sa njaam gi weesu nag canga Cheikh Ibra ki ñu wan jëf ñu jëf ci Bàmba mooy dëgg Cheikh Ibra jëra liggéeyal te liggéey bépp saf dëgg ñoo ngi siyaare bu baax a baax Serigne Mamour ci jotaay bu tedd bi nga xam ne alhamdulilah tey agsi nañ ki fii ci Lamp Fall di bul murit eh, muy am talaata bu nekk di jotaay bu am solo hmm. waaye noonu lañuy ñuy siyaare bu baax a baax Serigne Mountakha di ñaan sa borom guddal fanam noonu lañ koy ñaan Serigne Fall Modou Mbenda di ko ñaanal mboolem kilifa yëpp rek hmm. waaye di sant bu baax a baax it ci hmm. liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy liggéeyal maam Cheikh Ibrahima ngay waaye ci ñëpp nag ndaw lu jug ngir war wax ci Seex Ibra Faal rek yow lay jël jamono ji teg ko ci kanamam ngir bu ci tegtaloo rek lépp lu muy wax day doon lu leer waaye yoon wa nga xam ne jaar jaar nga fay dana fa mën a jaar bay jëlee lu leer di ko indil taalibe yi ndax Seex Ibra moom daa toll foo xam ne ni nga koy waxee rek muy euh, da naan diw nee na Seex Ibra Faal nee na ndax ñooñ la fi bàyyi kon bu ñu sa borom dimbalee ñuy nab nabi ci lool dañ la koy santewaat di ñaan kàddu yi yëpp Sëñ Tuubaa gërëm ko te def ko taw feex te tasaare ko ci mboolem jullit yi nga xam ne ñu ngi ñooy bàyyi xel jamono ji jërëjëf sëñ Mamoune jërëjëf Baye seex Ndaw lay lan mm-hmm. macha allah ci nuyoo bu am solo bi mm-hmm. Euh, baxaru ñukk bi nag am na fu ma yóbbu moom mhm. <laughs> xam naa mhm. Mhm. sama bàyyi seex seen raay maa ngi koy ziar bu baax a baax moom saa bu ma dégg baxaru ñukk rek day am fu daa am fu ma yóbbu xam naa du ñàkk ca kanam tuuti da nga di dellusiwaat incha allah ak yeneen yoo xam ne waajal nga ko ci jotaay bi di santaat baax a baax nag comme ni nga ko waxee amoon yéene ak pas-pasu nag ñu waxtaanee groupe bu ba delloo ñu ca ña nga xam ne Cheikh Ibra leen yar noo ngi sant nag ak a ziar ak a ñaanal bu baax a baax sunu bàyyi sunu sëriñ sunu xarit. ki ñuy xoole jëmmi Baye seex Ndaw tey mu sëñ Amdi Moustapha Ndaw yal na yàlla doolal ko wér. yal na yàlla doolal ko yàgg. yal yàlla kàttanal ko ba li li ko fi waajuram bàyyi. te mate ko sëkk. te ñëpp xam nañ ne oof na njabootu Baye seex Ndaw gépp. ñoo ngi ñaan san borom dolli ko kàttan ba mu gën fee yàgg. ndax yàggam fi kat sunu njariñ la. ak mboolem njabootu sunu maam Cheikh Ndaw gi yëpp. ak mboolem sëti maam Cheikh Ndaw yi yëpp ñoo ngi leen di siyaat di leen ñaanal bu baax a baax. di leen baax te am baax a baax nag tey Baye Cheikh ngir ànd ak yow jotaay bi mhm. ni nga ko waxee léegi rek xam naa mhm. duñu guddal ndax ku am gën tëraar yi te dañoo mhm. yéene tey xam-xam génn euh, moo tax euh, tey moom euh, xam naa ne ñuy déglu ñëpp te am mbégte te sunu yaay soxna Soda Xumma nga xam ne foo ko fekk moom. buñ nee Cheikh Ibra diw diw ci ñi àndoon ak Cheikh rek karmat na ci këyitam. Mm-hmm. macha allah ndax moom mag ñi lay topp. am na ci mm-hmm. ñoo xam ne fi ne tey ñi ngi yàkkamti ba ci sëñ Abdourahmane Ndaw sunu nijaay. macha allah xam naa moom dana topp mag ñi ndax boo nee bàyyi. bàyyi bàyyi mu sàll mbëmb. wala a neex euh, mag ngir waxtaane ko ku ne xam na ne Cheikh Ibra bi ne bërët jóg mm-hmm. tàmbalee ko ca njarawàqi mhm. wala boog jóge ca njabi mhm. ba nam seeti ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba ca cosaanam mhm. bi mu ñëwee ndar fekk na booba xëy na taalibe yee bëreeguñ ndax wax nañ ne maam Mudu ma mi nga xam ne démba ku naa ko meññi ak Ahmadou Rox ak démba ku na ak maam Ahmadou Fat Roqe yaa bokk lépp euh, maam démba ku na moo meññi maam Ahmadou Fat Roqe ya moom ba Cheikh Ibrahima waaj di dem waxtaan naag moom loolu la mag ñi nettali waaye bi nga xamante ni dem na ndar mhm. ci tàmbali mhm. mooy ndar mhm. ña ko fa njëkk a topp muy ñaar fukk ak benn ñoo xamante ne bii dañoo jël seen lépp jox ko tàmbalee ko ci Cheikh Babacar Lo sëñ mën Njaay ñaay seen mët Gay Banda sëñ Mbay Seck Cheikh Atumaan jàmbale ko ci mag ñi nga xamante ne bii ñëpp dañ koo dañ koo daroon mu mu ci groupe bu njëkk ba. Mhm. di ñaar fukk ak benn yëm njëkk a defar sëñ Babacar Ndaw samam ca la bokk. Mhm, ba nga xam ne Cheikh bi jóge na foofu itam dugg côté Tassinère. Mhm. waaw boo fa foofu sax diggante Tassinère ak Ganjon. waaye dugg ay tugg ak ba nam ñee ndànd faal foofu yëpp ay mag toppe ko fa am na ñu bari. nga xam ne dëkk boo ci tudd rek. day am ñu fa bàbbeeku ànd ak moom. am na ñoo xam ne ndànd lañ muritoo. am na ñoo xam ne eh, Ganjon lañ muritoo. ni la Cheikh bay toppe di dox di dox. ba dugg nag bawol gi yëpp. wër bawol dama bëgg nag dëkk yi Cheikh Ibra sancoon mhm. ak mag ñi fa tarbiya mhm. dañ ciy tànn benn dëkk tey mhm. du ma ne sax xëy na tey dañ cay yem waaye suñ bëggee waxtaanee mag ñi dañuy jël benn dëkk joxe ci exemple nga xam ne mënees na koo waxtaanee te boo doon wër dëkk yépp di tudd dëkk yi Cheikh Ibra Fall dëkkoon gébb moom du des gannaaw dëgg la ndax gébbu kat daara la joo xam ne Cheikh Ibra ko sancoon wax nañ ne daraa gor Touba gudd jot mu dem gër gébb mhm. daaru muhit la ko Seex Ibra tudde woon mhm. ma fa yéene nag tey nag nu fas yéenee waxtaane mhm. mag ñi Seex Ibra yar waaye nañ tàmbalee gébb gi nga xam ne nag Seex Ibra taxaw na fa téen na xee xee gi nangu na suuf na macha allah dëgg la jërëjëf jërëjëf sëñ Mamour ci tijjite bu am solo bi nga xam ne maanaam ubbi nga bunt yëpp fi ne nii ngir ngir ñu mën a waxtaane dëgg-dëgg Seex Ibra waaye ko wax dëgg-dëgg Seex Ibra wax mag ñi waaye ku wax mag ñi it wax dëkk bi nga xam ne fa lañ làqi ngërëmal yàlla mhm. muy dëkk boobu nga tudd muy gébb may wax ne gébbu jamono ji doy na sëkk ñëpp taxaw ci rek ngir di ko waxtaane mhm. ngir lan mooy Cheikh la dafa wane bàttinam waaye Cheikh Ibra dafa wane dooleem mhm. sañ-sañu mag ña tamit dafaa feeñ ndax ni nga ko waxee sëriñ bi Cheikh Ibra bi muy gor Daaru Salaam waaye di gor Touba wax ne guddi gu jot mu daan dem gébb di ko gor lu jiitu loolu sax bi Sëñ di nekk Daaru Salaam mhm. Seex Ibra danaa yanu sendalu xaar mhm. jóge eh, Mbàkke Kajoor mhm. di jaar noone bori jib waxañ ne su masaana jaar day dox ba yàgg waaye daan romb genn eh, loora eh, loora goo xam ne maanaam ak béb la woon béb béb gu ndaw nee na boobu béb gu béb gu ndaw la waxañ ne bis da ko romb dox dox munta jàll nee na mu yenn sendalu xaal gi dem ca béb ga sukk fa xool ko Nenek bimu bi bimu ñëwaatee bi ca sendale xaal gi dafa juk nee mu wuti kër borom Touba Darou Salaam. Mm-hmm. koroog bi muy waxtaan ak Serigne ba di ko junju mm-hmm. waye nak boba Cheikh Ibrahim kon daana fa dem. Mm-hmm. daan ñëwaat ndax waaye ne bu masaan a gor fi bu guddee mu dem fa laal fa dara. waye bobu taxut Cheikh Ibrahim deug deug it mu sanc ko waye bobu ma nga gor ba. da da ndax mag ñu bari doon nañ ko wër. man la ko borom loolu it xam naa euh, du da nga ñëw sax ci euh, lu ci mel ni dëkk yi nga xam ne ñoo ko wër muy daaru daaru moxteeg tuubaak mhm. euh, dëkk yi nga xam ne ñoo ko wër mhm. nga xam ne ñoo ko seerkal waaw am ñoo xam ne Cheikh Ibrahima nee na dëkkandoo lañ ay ay dëkkandoo lañ waaw ñu dëkk ko wër ko foofu ci génn mën ngaa tudd sam-sam sëñ ma baabu Guèye sëñ ma baabu Guèye Madina Touré sëñ Mor Fatou sëñ Mor Fatou Touré waaw ñooñu ñoo ko daa daaru moxti maam Thierno waaw ma ngo waaw njaarim féete ko nii Touba mhm. bis nag bi nga xamee ne Cheikh Ibra mi ngi njaarim li nag baay seex Dieng moom a ko nettali. waaw doomi baay àlla Dieng la. Mhm. ne noon sama baay ci mag ñi nekkoon nag fii ci daara ji ci Cheikh Ibra Fall ci géej fa la bokk fa la murito mhm. nee na bi Cheikh Ibra daa xëy ci njaarim waxtu cooroon waxtu tàkk tàkkusaan mhm. daañ daa doom ana ma faal nee na Baye Mafal ku ma ñoom la ndax bàyyi Cheikh jeg mi nee na ma woy juram ak Baye Mafal ñoo bokk kon nijaayam la nee na ma lii ma lay wax nag sama nijaay moom ma ko nettali waaw mooy Baye Mafal mooy Baye Mafal ku ma ñoom rek mhm. bàyyi woon na fi doom ju góor wax ne dafa teel a euh, làqu bi muy am ci ñaar fukki lu teg mhm. bàyyi seex sax nee na ma euh, doomam jooju moo ko xamal alxuraan lu ci ëpp ci la mu xam moo ko jàngal muy doomee bàyyi ma faal jooju mhm. nee na maam seex daa xëy daañ ne wóol leen ma ma faal nee na bàyyi ma faal ñëw nuyu Cheikh Ibra Fall mu ne ko ah ma mu ne ko faal mu ne ko ren kat damaa bëgg ngeen dem naweti foofee ma leen yabal nag na xam ne am murid du fa dëkk. Hmm. nee na bàyyi ma faal ne ko ah faal ñun dey ba ñuy bàyyi suñ kër ndey ak suñ kër bàyyi ñëw topp la loo joxe ñu dagg ko bëgg a doon murid a tax ñu topp la. mu ne ko ah ma déggoo leen wax de damaa wax ne foofu ku fa dëkk wees nga murid. Hmm. nee na Cheikh Ibra Fall dugg ci biir bàyyi ma faal daal di yuuxu daal di xaaju. Hmm. dañ ni mom xamul fere yi waaye mu guddi guddi guddi guddi moom day fanaane mom day fanaan ni day fanaan te Cheikh Fall dañ la bu ngeen xëyee ngeen dem. néna ñuko ñu muy bour ñu diko ko muy bour ñu diko ko muy bour ba yag néna mam Cheikh néwa teul tëll ci kees daañu laa daañu laa doom kii yuuxu xana ma fa la. ñu nako waaw mom day ba nga waxé sa wax joju ba légui dal donatu nit. néna dafa xaacu néna day fanaan mu naa doom ba leen ko mu dem. ma faal xamoon naa ne su déggé sa wax dotu don nit ba leen ko mu dem. Baye ma faal nee na ñu bàyyi ko. nee na mu toppal bi. waaye nag xamut dëgg dëgg dëgg bi. fan la fan la. waaye mu wuti na ko rek. keroog ba mu ñëwee juste dafa agsi ci béb ga. béb ga béb ga Cheikh Ibra Fall jàpp la woon. Baye ma faal nee na may xool béb gi nee na nee na béb gi neex ma lool nee na ma def fa lu mel ne jànku pël. waaw nee na keroog falaa fanaan ca guddi ga waaye bàyyi ma faal nee na keroog guddi gi luy xaj. maanaam maanaam lépp loo lépp lu nekk ci àll bi. Mm. Ah, maanaam lu yëngu rek. Mm. nee na keroog daw na wut si ma waaye mënut a agsi ci man. muy bukki yeeg. gaynde yeek nee na keroog lu nekk wut si na ma waaye nee na mënut a agsi keroog ci man. Mhm. nee na ma fanaan fa nag ba guddi nee na ma dox jëm yoonu Daaru Rahim. Daaru Rahim. Daaru Rahim. Mhm. nee na keroog ba ñu agsee Daaru Rahim fa laa tasanteeg mag ñi. ndeysaan su ma juumul ñaar fukk lañ ak ñett. ak ñoo tasanteeg moom foofa. Mhm. waxañ ne keroog Daaru Rahim fa la njëkk nawet. bañ nawetee nekk fa euh, euh, lañ fa lañ fa doon lañ fa doon dajale ñu ne nañ ko yóbbul Cheikh Ibra Fall mhm. keroog bañ ko àggalee yóbbul ko Cheikh Ibra maam Cheikh laaj leen fu ngeen nawet mhm. nee na ñu wax ko mu ne mu laaj leen dëkk ba nu mu demeek njakara ma jëy nee na ñu wax ko mu ne waaw ah, nu mu demeek nee na ñu mu ne ah doom des na de des na waaw ndeysaan de yëgagu leen barab ba de mhm. daañ na nag damaa bëgg bu ngeen àggee ngeen dox lu tollook ñeenti kilomètre danaa ànd ak Mout Fall Mbenda seet si leen waaw doomu waaw suñu Fall Benda. waaw mu la la àndal. waaw moom daan àndal. daan ko dawla oto ba. Mhm. daan ca boole naala jalaala. waaw naala jamaala mi man taala rabbi samaay. Mhm. waxañ ne karoog bi nga xamee ne mag ñi dox nañ kon. Mhm. baag si gébb rek nag ñu taxaw di xaar Cheikh Ibra. keroog bi maam si accès danaa doom fii mooy barab bi. keroog maam Cheikh ne dafa tibb suuf si da koy téye dañ laa doom suuf su neex a jaamoo yàlla ngi nii. waaw ci. <laughs> suuf su neex a liggéeyale sëñ Bàmba ngi nii doom kaw gi nangu na suuf gi nangu na. suuf gi na ci. <laughs> nag doom suuf sii day nangul gim nangul liggéeyal yàlla. Mhm. ñetti dog la woon waaye dañoo wuute. mooy gànnaar Saalum ak Bawal. Mhm. wacca gànnaar suuf ga nangu na waaye kaw ga nanguwul. wajja salum kaw wa nanguna way suuf gi nanguna na dom fi nak dom kaw gi nanguna suuf gi ci na waaw xam nga gànnaar dafa ah, taw waaw dafa taw waaw mam Cheikh wax len lol nak ñu tambali liggéey bi ci tambali gor bi mhm. gor bi sax suma jumut li nga xamante mom la ma ci baye baye Cheikh Dieng netali mhm. ci ñaar fukki ci ñaar fukk ak ben yi ci ñaar fukk ak ñet yi ga gor waaw ci bala ngaa jàll ñoo ngi nuyu baax sëñ Cheikh Fall Mbor te di ko siyaar Amin. Amin. Cheikh Fall di ñaan yàlla Amin. borom Amin. ko Amin. Amin. Amin. lool amin amin amin amin ñaan yàlla ci barke Amin. gébb ak la fa Cheikh na liggéey amin amin Amin. na fi yàlla Amin. sëriñ Cheikh Fall Mbor bi nga tàmbalee ba tey Amin. macha allah xel Amin. ngi ci jëm Amin. Bada mi nga Amin. ne Amin. taxawal Amin. <laughs> moo Amin. fa Amin. ko fa nekkal macha allah ama gébb moom <laughs> mhm. euh, Cheikh Ibra ko féetaloon sëñ moo ko féetaloon macha allah tubarkalla macha allah Seydina Aliou borom man mi maay Aliou mu njëkk ma waaw Baye Mbekken Xande ma wax de wallaay ndeysaan ah, Aliou Fall Mbor la ko waxee de mhm. nee na ma booba signal li ak Baye Mbaye Diop a ànd mhm. Baye Mbaye kenn moo ko nettali doxal doxal danañ ci dikk waaw waaw xam nga mhm, mhm. Baye ma faal gannaaw moo jiite géeb moom ndax moo fa njëkk a dem moo doon jëwriñ ja moo doon jëwriñ ja moo jiite karoog gor ba Baye Modou Mbeng lasta waaw laska waaw daare laska Baye Aliou Diop laska waaw maam Abdoulaye Guèye maam ma Jaara Guèye maam Moor Ndiaye Baye ma xujj Suwaare Baye Isma Joxaane Maam Njàmbe Joxaane Baye Ousmane Ngom Baye Mudu Fatma Baye Aliou Faye Baye Abdoulaye Guèye Maam Moussa Ndooy Maam Mor Ndooy Baye Moustapha Ka Baye Abdoulaye Silla Baye Mor Faye Baye Ibrahima Thiaw maam euh, Maam Mor Thiaw Baye Aliou Thiaw ak Baye Seex Ka ñii ñoo gor gépp muy ñaar fukk ak ñett ca gor bu njëkk ba am na ñoo xam ne ñu ngi kontaan ndax seen maam. seen maam ngi ci jotaay bi. ñu ngi ci jotaay bi ndax <laughs> ñoom. Mhm. ci ndigalu Cheikh Ibra Fall ñoom ñooy yeesal keroog gor ba. ñooy yeesal keroog mooy gor bu njëkk ba. muy gor bu njëkk ba. Mhm. Mhm. ñu sanc daara yi nag Baye Ma Fall jiite daara ji ndax wax ne boo Baye mu Fall moo jiite daara ci daaraam nag ci la ñuy sempee góor yàlla yi maanaam jëwriñ di teg. teg ah di waaw di leen samp. waaw. Euh, Baye Ma ku ma ñoom rek jiite daara yi gébbu ji Baye Mor Mbeng Lassa mhm. jiite daaray Laska mhm. Laska waaw Baye Cheikh Ñang mhm. jiite daaray Kawsara muy wann waaw muy wann euh, góor gu ñu wax Baye bay euh, bay euh, Mor Jeng Baye góor gu ñuy wax Baye ci ñi moo moo jiite woon daaray Baxdaas amoon na Baye Mour bi euh, euh, Baye Mour bi moom moo yoroon Baye Mour bi mm-hmm. yo yoraale Baye Daw dëggay Baxdaas moom biñ ko yeewee mu dem ca Cheikh Ibra Fall mm-hmm. ca la Baye Daw dëggay Baxdaas jiite daara ja waaye lu jiitu moom mm-hmm. moom moo fa nekkoon Baye Saliou Ndiaye Ndengaleer nekk Touba Fall Baye Saliou Ndiaye Ndengaleer nekk Touba Fall waaw waaw kon doy na sëkk rek kon ñu ne Baye Moudou Guèye Sine waaw Baye Modou Gueye Sine waaw. Baye Modou Gueye Sine. waaw moo yoroon Baye Dawda Gueye Baxdaas. moo yoroon Baye Dawda Gueye Baxdaas ak Baye Modou Bey ci daara ji ci daara Baxdaas ji Baxdaas waaw keroog ba fa Cheikh Ibrahima Fall ñëwee lam ca wax sax xam naa ca kanam dana da nga ci dëkk ca kanam ak ak dégg ba ak dégg ba <laughs> mag ñi nekk fa di liggéeyal yàlla mhm. ba yàgg Baye Cheikh Cheikh Ibrahima Fall yow wi Baye Baye Modou Gueye las Baye Modou Gueye Sine moomu ak Baye Cheikh Ñang ñu ñëw euh, fële ca Njaarim nekk ak Cheikh Ibrahima waaw bëkk néegam la woon euh, nekkoon bëkk néegam ndax bi Cheikh Ibrahima di fi bàyyikoo ko sax ne ci kanam la fi bàyyi ko. waaw moom mooy bàyyi Cheikh ci pooju bàyyi Cheikh Ndiang nii. ci la saam Cheikh demee. ay ci ci la demee ak sëñ Bassirou Mbacke. ak sëñ Bassirou Mbacke. ndax loolu kat sëñ Moussa moo ma ne. Mhm. bàyyi mu xuj bàyyi mu xujja gajaga moo ko ne keroog maag sëñ Bassirou ànd. waaw góor gi ma xujja gajaga. waaw waxañ na sax keroog waxañ na bàyyi Cheikh Tall Galaw mi ngi ci kër gi jàkkaarloog fi Cheikh Ibrahima Fall nekk. Mhm. ci wana wi. ci mag ñi nekk gébbu nag dafa liggéeyal yàlla mhm. léegi sëñ Mamour Gébu lan moo taxoon ñu sanc ko. waaw lan moo taxoon. ñu sanc ko Gébu waaw. diglu nga la Cheikh Ibrahima dafaa njëkk a wax. Mm-hmm. dëkk bu neex a liggéeyal si sëñ Bamba ngi nii. waaw kon liggéeyal si sëñ Bamba moo taxoon. Cheikh Ibrahima Fall sanc ko waaw. lu ma masaana ñoree ñu dajal indil si euh, borom Touba. Mm-hmm. maam Cheikh nag daan jaabante. Mm-hmm. yenn saa yi bu nekkee njaarim day ñëw seet si daara ji xool ñu def ak ñu toogee bu paree mu delluwaat njariñ wax nañ ne bi Cheikh Ibra day na seet si ci daara ji waa keroog ci pénc mi keroog la Cheikh Ibra toog ne na bi muy waxtaan ak mbooloo mi ba yàgg ku ñuy wax soxna Mati kamara waaw toog ci wetu Cheikh Ibra Fall ne sunu ndey ñëw na sunu baay ñëw na mhm. sunu ndey ñëw na sunu baay ñëw na maam Cheikh di wax ak ñoom ba yàgg mu ne ah diglu leen ah doom loo wax ma ne ko dama ne sunu ndey ñëw na suñu bàyyi mu ne ah doom wax na dëgg di dëgg lool rek. ah doom wax na dëgg de keroog ngeen xam ne man naa leen ndey mën naa leen bàyyi yéen ñëpp ngeen faatoo ndowoon ñu sangandoo leen denc leen ah doom kuñ ne jay ci biir bàmmeel mu ne Ibra Fall maay nag su boobaa da xam ne mën naa leen ndey mën naa leen bàyyi. foofu ci géej moom la xewoon. maam Cheikh bi seet na leen. gis mag ñi nekk ci de eh, ci déeg bi. li ñuy togge mhm. waaye li ñuy sangoo waaye li ñuy sangi jur gi maam Cheikh ñëw di xool dégg bi ah doom lii yéeme na de ah doom fu ngeen naana ñu ne ko ci dégg bi doom fu ngeen liggéeyal ñu ne ko ci dégg mu ne ah rek doom seen dégg bii de ngeen ñi root di ci naan di ci sangu di ci liggéeyal sëñ ba doom ak jur dana ci romb naan ci jur googu dem cib dëkk nee na soow ma wala ñu defar ko ñu lek ca ndawal la doom ëllëg yomal xiyam da ngeen gis ko xamne ne dana texe doom te defal dara Sëñ tuba lu dut seen deg bi ngeen ni liggéel Sëñ bam ci la romb rek doom naan ci wala jur gogu ñu tong tong ca mu lek ca ndawal la nga xamne ko nga xamne lek lekk ca ndawal ndawal ga rek wala nga naan ca soow rek te jur ga la lon deg ba te jur ga la lon deg ba rek ak texe la cay jural ak texe la cay jural moy waq di xawaa lazina damu waaw fii xidmati wahab lahu maramu mam Cheikh da deg bayiti borom Tuubaa boo déggee si euh, wax ju euh, maanaam lu bëree baree bare ñuy faral di leeral ne dangay ngay dégg Cheikh Ibra sax day wax wolof yoo xam ne dangay dem ci xaddis yi fekk ko fa dem ci téere yi fekk ko fa ndax damay wax ne Cheikh Ibra bu ñu amoon ndimbal ñun jamono ji ñëpp dañuy dem wut Cheikh Ibra Fall di ay waxam ak mbindam ndax soo ñeewoon na ko ndax yéen ñi yéen a ngi ci liggéey liggéey bu am solo ndax réew ya tey ku fa toog di jariñu ci Cheikh Ibra Fall te newoo fii loolu bu koy sant war na leen koy sant lu tax mooy yéen tax mu mën a comprendre Cheikh Ibra Fall waaw sëñ Aline Badara Amérique moom fi ne ma ngi fay def lu rëy ma fay liggéey liggéey bu am solo <laughs> waaw mboolem mboolem day fu sëñ Tuubaa am dara ci ci ci ci juróom fukki pays yeeg lu ko wër mhm. ma koy topp fi di ko wër waaw di ko wër di yaataan Cincinnati église bu mag macha allah nañ jëndal sëñ Touba église boo xam ne bokk na ci église yi fa gën a rëy macha allah ñu allah kon loolu dafa am solo mhm. muy waxi Cheikh Ibra daa mat jamono ji di jàngale mhm. di waxtaane pour ki nga xam ne xamul dara dana mën a eh, comprendre Cheikh la ki xam dara dana mën a comprendre Cheikh Ibra ki nga xam ne ay téere képp ko ñor mm-hmm. loo ko wax rek bu ko diggee day daw gaa dum ci téere di ko fa xooli ji boo ko gisul weddi la kooku day mën a comprendre Cheikh Ibra waaw ndax keroog Cheikh Ibra ba mu fekkee eh, ba ba mu fekkee kay jàpp mu ne kaa ah, doom mën a jàpp baax na mm-hmm. waaye nag doom raxas xol bi. waaw fa mat a sellal doom ndox. ndox yëbbu fa <laughs> tubaarkàlla maa ngi gébbu yi damaa gis ne Baye Cheikh. Mhm. dafa mel ne Cheikh Ibra da leen a garanté woon daa mel ne bu ñu xàccee daal Cheikh Ibra ay dóor. waaw xam nga Cheikh Ibra da leen ne lépp lu ngeen wax. Mhm. nay doon lu ngeen bëgg. Mhm. ndax làq ngeen ngërëmal yàlla loo xam ne lu ngeen xaaj ma fekk si leen ci. Baye Cheikh jeeg nee na ma dañoo toog ci njariñ baayam moo ko nettale muy Baye Alla Dieng te moom daa bokkoon it ca mag ñooñu nga xam ne karoog ba Cheikh Ibrahima Fall di yónnee ji ca liggéey boobu noonu ñu may wax da caa bokkoon moom nee dañoo toog ci njaarim maam Cheikh génn daañu damaa bëgg ngeen jëri jël ma ay ay say gi tax ndookaa ndookaa ndookaa say yooyu nag def naa ci loo xam ne képp ku ca dem boo ñëwee mhm. bu fekkutoon ngay biddiw danaa def ngay biddiw bu fekkon ngay eh, ngay da na def ngay wer bu donon ngay wer na def ngay jant bu ne bu donon ngay jant na def ngay njëndi nen nena magni karok dadi fakh daal nen nee na karoog mag ñi daal mhm. wuti ndoka bàyyi seex nee ma karok nena bayam bu dan dox nena fum cheikh mu Fall masaani yónnee nena mom bayam mom buy dox nena du solo ak lum sori sori nena dañ gis wi sax mom day melni ku soli dàll nee na keroog waxtu saan la mag ñi di daane say yi biñ ko daanee maam seen daa doom ka gannaaw def ngeen la ma wax kon la ma leen waxoon def naa ko loola kon mag ñëpp kon dara lañ loolu sañ-sañ la tudd sañ-sañ la waaw ku ñaan ñàkk nag boo jëndee boo am rek kon loolu dafa feeñ ci ñi nga xam ne dañ doon tarbiyu Cheikh Ibra Fall mu defal leen nag lu ne gàññi ak doole ndax foofu ca géeb bu bàyyi Eh, Baye Cheikh Dieng na naa fa ne ma du ma ne la kenn man maa ko fekke mhm. magi gébb yi fii lañ daan toog nee ma ca keppaar gi lañ daan toog boo demee ca eh, ca péncum gébb ba boo xoolee daa ngi gis garab gu mag ah, gu feete ne kër Baye seex Bey gis naa na foofu lañ daan toog mhm. di waxtaan ñoom mag ñi mhm. Baye Cheikh nee na ma toog nee na am génn góor gu dëkk gébbu waaye dafa ngoro ji woon dafa jamaale ji woon ñu jam ko waaw ñu nee na mu yor ab saagam ne na romb leen nee na mag ñi ne ko waaye doo ñu nuyu ngay mel ni ku doon jamaale ñu jam la nii. nee mooy leen ah wax ngeen dëgg kat yéen dafa mel ni ay jinn ngeen nag <laughs> ndax damaa jamaale ji woon soxna damaa dem ba di ko bëgg a takk ñu nangu ko may ko keneen mag ñi ñoo ne ko jëlal jëlal guro nga jox ñu ko léegi ñu may la soxna si. waaw waaw. <laughs> nee na mooy leen waaw kooku may ne mooy leen demal jëndi guro jox ñu ñu may ko soxna nee na karoog ñeent fukk la génne bàyyi si xam nee na karoog maa jëndi guro gi Kalau gue ma ñëwee nee na mag ñi dañ koo xar tasaare kemarin dañ ko may nañ la sama ada, def bàyyi si ndaw <laughs> moom lañ ko dippee waaw <laughs> bàyyi si moo tax ñu laylan <laughs> allah takk ma si laylan ji jël ma ci laylan ji booy laylan may xur bi sëñ Moussa Nawel sëñ Moussa Basirou ñu ngi ñaan sama borom yàggal ko saa bu ma gisee rek loolu la may tooñ takk ma ci laylan ji jël ma ci laylan ji ma ne ini. waaw da démb la woon lañ ko daana taxaw na fukki ngi si ndaw ku am ñaar fukki tegg ku am tegg benn loolu xam nga mag allah mooy li wax rek mhm. ñaan ñàkk am mhm. Euh, man euh, tey nag dañoo ñëw ci gébbu mhm. waaye bu ëllëgee danañ egsi mhm. waaye mag ñi ñu fas yéenee waxtaanee mhm. dañoo bëgg a ci wuur boo xam ne ñu ci bari gébbu leen gébbu leen Cheikh Ibra defaree waaw kay te te gébbu ci daara yi cosaan yi la bokk ndax nee naa la am na ñoo ne sax ñetti fan la ko Tuubaa mage de waaw am nañu wax loolu euh, maanaam ba Baye Cheikh Dieng nee na ma waaw Cheikh Ibra Fall moo ne baayam waaw gébbu Fall lañ denc bàttinu Tuubaa déggal loolu Euh, euh, nee moom loolu nee na bàyyam nee na moo ne seex bi Ibrahima ko ah, kay waaw léegi nag su ko defee moo tax ma bëggoon nag ñu tàbbi si mhm. ak leen ak gébbu maanaam mhm. wax naa la léegi junju naa ne la magi gébbu yi dafay mel ne bu ñu xàccee Cheikh Ibrahima dóor mhm. ndax biñ gënee doon gone rek am na ci ñoo xam ne ñaar ñoo xam ne dañuy dox ba romb aw nag nag wu ëmb mag ñee ma ko wax de kenn ki nag góor la nag wi ëmb ka ci des na jigéen te booba ay dongaleñ ne ci daara ji nag seex ñaar biñ dikkee Cheikh Ibrahima bàyyi leen werante doom sàmm boobu may ngeen ko yëg wenn nag képp la naroon am xam mm-hmm. nga <laughs> kon daal bu waaw bu xam ne Cheikh Ibrahima dóor euh, Cheikh Ibrahima waaw li tax mooy dayeen ne lépp lu ngeen wax nay lu ngeen bëgg rek xam nga bis mm-hmm. maa ngi koy nettali kaw ne dafa am ñaari taalibey Cheikh Ibrahima Fall mm-hmm. ndax mag ñi ñoom it bokkuñu suñ jamono ji ñoom dañuy liggéey ba pare di natt seen bopp ba xam liñ liggéey yàlla nangu na ko nangu na koom déet ne na ñaar ñi dañuy dox ci àll bi ba yàgg ñu ne ñun daal nañ xool ba xam li ñu liggéeyal Cheikh Ibra Fall yàlla nangu na ko nee na mu ne ko nu def mu ne ko dañuy takk suñuy bët mhm. ci guddi gi de daw dugg àll bi mhm. bu ñu weree àll bi daw nañ tasewaat fii nag bu ñu dig jamee mhm. wala xaaxaam wala ñu faqasalo wala ñu mbëkk garab nañ la nañ tekkiwaat dem laxasaayu jiwaat xam ne ñun liñ liggéey yàlla nangu ci dara nee na ñu ne ayca nee na ñu takk seen bët nee na ku nekk daw jaar ne kenn jaar jaar ne nee na ñuy daw nen ci biir àll bi mhm. nee na ñuy wër àll bi nee na ñuy wër àll bi nee na ñuy wër àll bi ba wut waat fi ñu taxawoon mhm. na ku nekk tekki ne loola dal mu ne ko ah, man de wax dëgg yàlla dig jëm ma xaaxaam jëm ma te mbukkuma dara mu ne ko may noonu mhm. keroog bi ñu xëyee ñëw nuyu maam Seex maam Seex dana leen xaa doom mag ma toog ngeen ko yëkkati ci guddi gi muy dëjjati garab di randalay xaaxaam ci loola. ndakate boobu ñoo ngi daw waaye Cheikh Ibrahima ngi randale xaaxaam yi ñoom. Ah, li tax mooy day ne lu ngeen di wax nay lu ngeen bëgg. Ah. ndax maa gën a gaaw melax te du ma wuute. te du ma ah. <laughs> kon gébb googu moom Cheikh Ibrahima dafa wane lu baree baree baree baree bare. Mm. ci biir eh, ci biir daara ji maanaam ci gébbu. bàyyi bàyyi bàyyi seex kan eh, bàyyi seex kan. waaw na ma ci ne ma. góor yàlla la. moom <laughs> bàyyi seex kan moom nettal na ma ne ma. Mm-hmm. jéeg bu baayam ne na xuru mbàkke la ñuy dajalee dossiers góor yàlla yi daal. waaw waaye ñu ne géebu faal la ñuy fale moom. waaw. moo tax Baye Cheikh kan nee na ma yenn saay ma toog ak ñu ñu naan ko góor yàlla nga gépp mu ne ma déedéet ma doo góor yàlla ah na <laughs> xam naa xol baa ngi seet macha allah moom fi ne bi sax mhm. moom lañ ko defal macha allah jotaay ndax dafa bëgg gébbu ci xolam ba ma xam mhm. ko gébb waaw saa bu toogee danaa <laughs> xam nga ah, ak Baye ba sunu Baye Talla Gueye nee mhm. sama tànk Touba tee ma dem ma dem gébbu <laughs> dafa wax ne fanaan ñetti fan yi gébb nee na loolu lu ko waaye jare jënde jar na ko. ñett fan géew waaw ni ñu waxee ne sàkku xam-xam. Mm. jar na sol dal weñ ba mu toj ngir sàkku ji ko waaye maam Cheikh nee na fanaan ñett fan yi gébb nee na jar na daw di ko di di daw ba tànk yooyu noonu xar ngir fanaan ji gébb ñetti fan yi rek. waaw man ndax xam nga maa ngi fàttali euh, maam Thierno Sall. Mm-hmm. dooguma la nag damay kàndang mhm, mhm, mhm. <laughs> macha allah danaa bëgg nga dallu tuuti <laughs> damay kàndang euh, maam Thierno Sall bàyyi bàyyi Mahmadoon Touré moo ma nettali booba ñu ngi toog di waxtaan noonu mu ne ma fii ci koñu barabu sëñ Sadio bii maanaam mu ne ma falaa mujj dajeeg Baye Thierno Sall Baye Thierno nag comme ci armée li danaa faral di féete su masaani màggal Tuuba lépp ci armée li la ko daa lu ci ëpp sax barabu sëñ Assane Fall la daa féete sëñ Jiidi Thiam ma nga ci Amérique ku baax mhm. yàlla na ko fi sama borom yàggal taalibe sëñ Mërab lay Fall Ndar la mhm. nee na ma mhm. man soo masaan di màggal si maam Thierno rek laa la nekkal doo ma dem fenn ci maam Thierno lay màggal dëgg la maam Thierno nag bi muy waaj di dem daa yor ay bagage rek génn bàyyi Thierno bàyyi dan nee ma fii laa dajeeg moom ci koñu barabu sëñ Saliou na ko waa bàyyi Thierno foo jëm mu ne ma damay deeyi ma ne ko ah fan mu ne ma damay deeyi ma ne ko fooy deeyi mu ne ma gébbu mais booba tam xarit la ñuy waajal mu mhm. ne ma cere tam xarit ji du ma cere ma ne ko bàyyi cere mbaa da ngay bañ cere mu ne ma déedéet doom damay deeyi mu ne ko ah doo dee Tuubaa mu ne ma mhm. déedéet mhm. mais ma ne ko lu tax mu ne ma dee ñu taxañ taxañee ma denc ma ci saa si fàtte ma la du def mu ne ko waa Baye Thierno yow loo bëgg kon mais Baye Thierno na ma damay dem ba géebu ga ma doon ñaqale Cheikh Ibra ma faatoo fa su ma fa faatoo suñ ma fa yanoo jëm seeg man Touba. Mhm. malaaka yi di ma bàkk ba waa armée armée yëpp xam ne saa Sall ngi ñëw. Uh-huh. daal dem jëm gébb ba mu demee ba mu faatoo. Mhm. loora googu. Mhm. ca pénc ma. nga xam ne léegi daanaka dem na ba ku def gis bant yaag jeexital ya. te loora ga it. mag ñee dox ba mu yàgg rek. ci jaayante gi ñu daan jaayante Seex Ibra wax nga ko léegi. ñu for ak bant. ak mat. ñëw daal di koy samp. loo xam ne da ngay won lii moom bàyyi naa jéem nag matt gu dee gu wow la Baye Ablaye Fall Khadindou ma ngoog Baye mm-hmm. Ablaye Fall rek ñoom ñu daat na nag mm-hmm. nañ jaayante mm-hmm. su fekkee ne suñ liggéey bi seex ba nangu na ko na bant bi jebbi su ko nangu ba mu jebbi bant ba mujj doon loora ko faatu jébbu fa lañ lay fanaanal maam Thierno Sall mii ma lay wax keroog fa lañ ko fanaanal door ko indi Touba dëgg la Baye Jili Thiam nag daf maa nettali na ma xam naa dina mi na ma dafa na jox ma sa yéere ndax dama bëgg bala may faatu ma am yow sa mbubb mhm. nee waaye mu teg na ma waaye ren laay faatu nag mhm. ma ne ko ah, mhm. na bis nag am ko faatoo fii ci Ndakaaru ñu di ko yóbbu Touba. nee maa ngi naan ci biir oto bi danaa leen bu nee ma woon leen koo xam ne Cheikh Ibra ko yar ndeysaan dëgg la ci armée lay ne maam Thierno Sall la tudd ku doy waar la mais waaye bi ñu egsee bañ taxaw ki ma ki ñu indi mais fi ma toog di wér dalal falaam ko ma fekk na yow ko sa góor ga nga daan fekk si fii ma ne ko mhm. waaw mhm. mu ne ma te dëkk gébbu ma ne ah, mhm. ma ñu ngi koy ma ah, a nuyoo uh-huh. ne uh-huh. ko dëgg la uh-huh. waaye ma nettali bàyyi ma am taw na Sàll <laughs> dëgg la waaw waaw <laughs> léegi doxal pour wax la rek ne mhm, la kon dama ba tey damay firndeel li ma ne la bu magi gébbu yi bu ñu xàccee si ray dóor mooy dóor waaw xam nga li tax mooy mhm. Baye na moom nga wax moom moom moom gébbu mhm. dafa wane njàmbaar goo xam ne kéemaan la ndax danga koy wax ne bi nga bi fi Cheikh Ibrahima Fall di jógee booba wàccagut déedéet te te lim def lépp tey boo ko déggee da yaakaar ne kii jamonoy Cheikh Ibrahima faal maam ña da ko wàcce laataa muy dem ndax bis ca gébb googu bàyyi euh, bàyyi bàyyi euh, mut sooda faal moomu. waaw ñu ngi ensemble ba ñu yàggal ko fi lool ndeysaan doy Mamour Ngone Mamour Ngone ndeysaan moom Mamour Fatma Fall ndeysaan macha mm-hmm. allah bis damaa toog ak moom foofu di waxtaan ak moom di ko laaj ci Baye na mu ne ma boo génnee rek sama wetu kër euh, biñ génnee mu may gunge bi may ñibbi mm-hmm. mu ne ma gis nga feeneel la néegam bi sëppi woon moom doo nga fa nekkoon amul soxna amul dara waaw waaye Baye Cheikh Dieng dane ma bi ñuy nekkatu tànk ca ca ca gébbu nee na bis eh, koo xam ne jarbaat la ci Baye Baye Thierno Sall. Mhm. da dafa amoon ngénte. Mhm. neen nee na ñu xëy defar defar ndab yi ba taal nee asamaan si xiin. Baye Baye Cheikh nee na karoog man bokk naa ci tuttànk ya daw àkki Baye Thierno ndax booba xale lañ waaye xam nañ ne Baye Thierno moom foo taw moo ci gaaw. Mhm. nee na ma ñëw ba ci moom ne ko ah Baye Thierno suñ ngénte li moom mbaa du yàqu nag. Mhm. doo wax ak taw bi ne na bàyyi ceen korog dafa ne tëll daal di jàkkaarloog penk bi ne ko meekaayal sa ndox mi teeku ba ëllëg ndax ñun tey dañuy ngénte ma seex euh, ne na karoog bis booba ndox tawu fa waaye bañ xëyee nag nee na karoog la ndox mu suub ca gébb mhm. ca ca biir gébbu goog it bàyyi seex kan mi bàyyi seex jang mi nettal na fa ne ma de toog na bis mhm. toog ak mag ñi nee na ñuy waxtaan. Baye Cheikh Baye euh, Baye Baye Daouda Ngom. waaw ca euh, ca gébb la nekkoon. moom it Baye seex nee na ma fële euh, la këram nekkoon waaye a njabootam dañoo toxu lekki dem Touba. Ah, waaye fële la ay waa këram dëkkoon. Mhm, mhm. boo demee xam nga gébb dafa am ay roq yoo xam ne. Mhm. waxuma la dara waaye baatin dafaa nekk. ndax Baye Cheikh kan mas na ma cee wax bis ne ma bu ñu àndoon gébb ma wan la ay. ay ay yoon yoo xamante ne dama naan la fii mag ñi nee nañ ma yonent yi daanañ fi doxantu waaw te gébbu <laughs> kon gébbu kon la Cheikh Ibra Fall wax ne dama koo làq fii de da fii de da dim pénc Baye Cheikh moom waaw da dim waaye kon mën a la diw mhm. Baye Thierno Sall nee na delsi na jamono tarbiya Cheikh Ibra maa nekkoon juróom ci daara ji ca géeb waaye fii da dañ pénc nag waaw <laughs> ah, dangu ñu seetaan <laughs> waaw te dañ ne woon delloo bunt waaw kay ah, kon bunt bi kon moo tax gébbu moom mm. maam bu yeboo képp ku ñuy teewlu mm. te mosoo faa dem nga dem fa waaw daara la jox li tax mooy Cheikh Ibrahima Fall nee na fa la ñuy yeggalee góor yàlla yi. Hmm. maam Cheikh wax na dum sama bépp gi ci géebu Fall. Hmm. Baye Cheikh nee na karoog baayam nee na karoog bi ko Cheikh Ibrahima di def dafa maasale suuf si daañu ne doom cin ñetti was. cin ñetti was waaw. waaw cin ñetti was. waaw. Hmm. daañu ne doom sama bépp gi ci eh, ci géebu day. ak bébub sëñ Bamba ga ca Touba. waaw ak bébu yonent bi doom ñetti béb yi kat doom ñoo ngànk àdduna. waaw seen ñetti ren yaa tal toggee. ñoo tal toggee. Baye Cheikh Kane nee na ca bu faal la Cheikh Ibra Faal toog. Mhm. nee ah, doom Kaaba ngee génn jëm doom ca Màkka doom man ak sëñ Bamba rek fa nekkoon. waaw fa yàgg la daañ ne doom sama loxo bii tabax na ca Kaaba ak Màkka ga nee na karoog loola bàyyam ne na karoog ci gébb la ko waxee ca pénc ma tabarkalla waaw ma ne ko ba ma gisee sëñ Manel Fall mu sëñ Saliou Fall mu Cheikh Modou Moussa Fall ma gis ko ca Kaaba ga ndeysaan mu umra ji woon ma ne ku baax la ma ne fii nga taxaw sama am yàgg na fi sama am xam na ko lool waaw waaw eh, damaa bëggoon ñu dikkaat xam nga yaa ngi woon ci Baye Thierno Sall bala ñuy dem nañ taxaw tuuti ci Baye Thierno Sall ndax eh, gébb dafa am lu doy waar lu fa xew Baye Thierno nee na damay dox ci mbedd rek. nee na ba mu yàgg ma jékki-jékki rek nee na gis gilim ku daw wut si ma. nee na xam naa ne gilim gi moom. aw ma pexe. fenn fa may jaar. ba du egsi sama kaw. mais fi may xalaat gi di jaas ma ne Cheikh Ibra Fall. mais ma ne dañ mën a cas xalaat ma. waaye nee na bi ma nee na daal. bi bi ma del nee na bi ma delluwaat ci sama sago bi ma ximmili ko. nee ci ëtt bi. sama kër. fa laa daanu si. mais teg nañ ci ay fan nag. muy nuyu ji Cheikh Ibra. mais ma yëglu ci buntu mu ne ma kooku ma ne ko mën a Thierno Sall mun a ak ragal gëléem. ndeysaan <laughs> ndeysaan waaw léegi. gébb euh, lu na xew na fa ndax. xam nga maam Thierno Sall. nga léegi na sampul kër xam ndax Cheikh Ibra nee na. waaye Thierno nee na Cheikh waxoon ne Thierno Sall. Mhm. ma ne Fall. Mhm. mu ne ma doom dem leen wuti yàlla. Mhm. ndax lu waay di taxawal ci àddina saay-saay mën na ko ba mu des yàlla bàyyi ceenu teg ci ne keroog laa bàyyi nangam mhm, mhm. <laughs> ndeysaan waaye fi ne ñàkk gaa samp kër rek mhm. ak xam nga bàyyiwu fi doom ba wu fi dara ndeysaan waaye nee na am na yoon wu ko Cheikh Ibra jaarale woon woo xam ne moom Cheikh raa ko fa jaarale wax naa ko dama koy wax ci waxtaan yu bari am na sax ñu bari ñoo xam ne boo gisee ñu yor seen gën di tux wax ñu ne dañ koy reye Cheikh Ibra dañ koy reye Baye Fall du man na toog fii ne la mag ñi daawuñu tux déedéet mhm. Mhm. du ma ko wax de mhm. waaye danaa wax li tax mag ñi fi ñu yeggoon ñoom ba am na ci ñooñ ñu ko daa jëfandikoo ba xam ndax yow miy tux yegg nga ca Baye Thierno Sall nee na damaa yor sama gën di tux nee na di bayal Seex Ibra ne ci tool yi yor sama gën nee na ma seen Seex Ibra yi ñëw ma sànn gën gi làqu ko ndax bañ Seex Ibra gis ko mhm. nee na Seex Ibra jaar ci kaw mbayeef ba egsi dama mhm. jàkk na ma Cerno Sàll ma ne ko Faal mun ne ma sa mbayeef mi da am lu muy wax mu mhm. ne ko Faal sama mbayeef mi lu mu wax mu ne ma nee na daa am lu doon jëfandikoo mu ne ko ah, Faal mbayeef mi di wax na dëgg mu ne ma waaye nag yow defal nan la ko li jigéen li góor di yëg ci bànneex ci jigéen nga nga di ko ci yëg bàyyi Cerno Sàll nee na saa bu ma jëlee sama gënn gii nee na joxoñ ko mu mu tàkk mm-hmm. nee na ma seex ko xëcc mm-hmm. nee na lépp lu góor di yëg ci bànneeku jigéen danaa ko yëg ci lool waaw su wéyal xam nga waaw damay kàndag rek waaw dëgg la macha allah dama bëgg nu waxtaane Seex Ibra tey ak man waaw ah, xam nga fii ni li ñuy wax ni fii sax yëpp mm-hmm. maanaam yaa ñu ko gën a maîtriser waaye fii nii eh, da ñuy dimbali rek waaye moom euh, tubaarkàlla fii nii da ñuy dimbali sax ci waxtaan wi mhm. mooy ni ñuy ubbile ay bunt lo buntu yooyu rek laa bëgg mën a dugg <laughs> waaw bu baax a baax am na ñuy seetaan ñoo xam ne mhm. seen xol a ngi sedd ndax mag ñi rek lañ eh, gëm mi ngi sedd macha allah am na ñoo xam ne fi ne lu mhm. coow li bari bari mag ñi rek lañ gëm mag ñi képp la ñuy ndax nag ndax nag ndax nag Cheikh Ibra nee na watit ak kubit mais taxul kenn am dangar so doxé ba gis ci all bi mm-hmm. da nga naan naam moytu jaan gaan jaan bi waye Cheikh ibrahim nee ku bëgg dangar da ngay jonjog ja mm-hmm. deug la moy ñi nga indi ci jotaay bi ma sha allah tubaarkàlla Baye ya Thierno Sall moom ñu ngi ci ñaar Baye wa waaw waaw sa Moussa mom wa waaw mom iya, leppam la alhamdullah mom nee ma reen ba dewen ma ak mom bokk nañ ko ci benn kër bo xam sengum ñaari neeg la mu dëkk ci neeg mu dëkk ci neeg reen ba dewen nee ma nuru daal ni bi may jang jàng ci Thierno sal tax ma di ko jàng ndeysaan tubaarkàlla alhamdulilah jërëjëf ci eh, ci côté boobu duggoon sax mhm. euh ci Baye cerno Sall ak gënn gi mhm. Mhm. euh borom ba xogn yi waaw soxna Fatma waaw waaw euh, soxna Fatma ñimi waaw waxañ ne bi Cheikh Ibra da ko woolu woolu mag ñi ñen ci mag ñi hmm mam Cheikh boyal lu ànd euh, kii fourne ba mu xonq cur nee mu digal soxna ci ne ko tibbu ko hmm neena soxna ci daal di tibbu loxay hmm ak xali xali xal yaa ngi xonq cur nee mu jang ci juroom ñaari isbi bi hmm maam Cheikh na daañu na ku mënta def ni kii war nga fee bàyyi gën gi euh, kon loolu ab tijjite la woon sax ci côté boobu. Ah, waaye maam gébb moom. Mhm. mag ñi ngay wax dañ faa def lu ne ndax. Mhm. Euh, Baye Baara jaay laska. waaw. waxañ ne bis daa toog ci gébb. Mhm. nee na dégg ñuy tàggee ku ñuy wax Abdoulaye Demba Gueye. waaw gébb rek la gébb la dëkkoon Abdoulaye Demba Gueye. nee na bi mu ko déggee mu ne ah kookan la ñu ne ko dem Demba Gueye mu ne ah Abdoulaye Demba Gueye euh, góor du gont góor day xëy hmm? ah, góor du gont góor day xëy man du ma gont damay xëy nee na euh, Baye Baye Cheikh nee na karoog bi ñu xëyee hmm. la Baye Baara Ndiaye las ko wàcc moom moom mi doon wax naan góor du gont duñ góor du gont góor day xëy <laughs> nee na keroog bi ñu xëyee nee na moom moom la xëy dem moom nga xam ne la mu waxoon moom def na ko moom moo tax jébbu googu moom hmm. man ñi dañu wax ni lepp lu fa way ñaan sax sa borom man la ko nangul hmm. ndax li tax mooy ña fa nekkoon doon ci bay Baye do Ngom mi ma lan wax hmm. bay Cheikh neena bay Cheikh jek neena bis dañu tok ci daara ja hmm. neena neena ñu maral waaw waxtu nawet neena ndox manki lol dem nañ ba gantax gi tambale yaq neena dem na ba mujj gi gantax gi dafa wow wow go xamne bo ko kosee almet sanni ci sax mu tak ngir manki ndox nee na keroog Baye Daouda Ngom daal di génn ca daara ji woolu mag ñi mhm. ca pénc ma ne tey waat naa ko ci barkeb Cheikh Ibra Fall tey bala maa jug fii am ndox tey dana wàcc daañ na mag ñi sikkar leen nee mag ñi daaj Baye bu Sooda Fall mhm. yaa ñu neree yaa ñu tëree nuur ci jahannama nee na di sikkar nee na di sikkar nee na di sikkar ba yàgg nee na asamaan si daal di yëngu-yëngu wu am doole te mhm. xiinut nee na yëngoo nee na Baye Baye Baye kan dana bërit bay daaw du ngoom dana bërit jug taxaw dañ ne waxuma yëngu am ndox laa wax ne si kër si jug nee na mag ñi nee na daajaat si kër si nee na ñuy sikkar nee na ba yàgg daal bàyyi sax jëng de nee na ma lii ma lay wax nee na fekke woon naa ko man nee na ñu sikkar ba yàgg ne na ngelaw lu am doole nee na juge ca penk ba di ñëw nee na ànd xiir xiin wi nee na ndes tuuti rek nee na taw ba sotti Baye Cheikh Dieng ne ma karoog sama néegum nday bii dafa fees deng dell akum ndox karoog ba ba ma fay dugg karoog damaa xoos. déggal loolu. kon loolu dafa dafa wanewaat firnde yi Cheikh Ibra Fall nam ko def woon ca gébb gébb waaw waaw. Ah, ca fukki sàq ya ak ñaare wala benn. waaw mm-hmm. ah, karoog ba Cheikh Ibra Fall xëyee eh, karoog ba ñuy bojj waxañ ne ba. xiin wa sàqe bàyyi ma faal ku ma ñoom rek ñëw ci Cheikh Ibra Fall wax ko mm-hmm. eh, mu ne ko dem leen nekk ci liggéey ba rek nes tuuti ñu ñëw ne ko ah Fall nag bàq ngi maam Cheikh daal di fatu génn xiin wa nax saay waaw nee na moo leen a doom Mikaayil laaj ne laaj ne bu leen tooyal dugub bi sëñ mm-hmm. mm-hmm. Bàmba ji mu ne ma jot na ndigal fépp lay tooyal ma weesu ko fa dem ca ka ko tawloo mu fomm taw bi waaw waaw ne karoog ab diir Cheikh Ibrahima Fall dem njaarim sëñ Tuubaa ne ko loo joteeg Mikaayil ndax ñëw na fi dima kalaameeg yow mu ne ko jaay ma jot ndigal mu ne ko bul bul tooyal dugub bi sëñ Bàmba ji mu ne ma jot na ndigal fépp lay tooyal ma weesu ko fa dem ca ka ko mu fomm taw bi dëgguma la Baye Abdou Niang moo ma ne mhm. keroog ba siixam rek génnee daf na wër leen dugub ja mhm. nee ñu wër ko mu tawaaf koog loxoom rëdd wër ñu mhm. mu a ma doom maa ngi ci biir rëdd a taxaw nga wër gébb faal te bu tawaa di ndox doon fa dara toog allah kon ku ah. ñaan ñàkk moom boo jëndee am ah, waaw ah, kon loolu day feeñ rek ci kàttan gi nga xam ne mag ñi wane nañ ko foofu ca gébb waaye ñu bàyyi xel na sëñ Mor Ndiaye tomb del gébb la mu ritoo de waaw Uh-huh. <laughs> waaw xam na àdduna ñuy seetaan macha allah waaw ndeysaan te dañu dañoo bëgg Baye Mor Ndiaye lool lool lool moom dañ ko bëgg de mm-hmm. te moom moomu gébb mm-hmm. mm-hmm. la fekk Cheikh Ibra Fall waaw Cheikh wax na ko lu doy waar waaw Baye teen ba waaw waaw xam nga xam nga Cheikh Ibra da daan defare nu ne ndax tey buñ ne la comme Baye Mor moom moom nga wax nim ñëwee ci Cheikh Ibra Fall ci gébb rek làq fa ngërëmal yàlla ci diir bu gaaw ak ni ko Cheikh Ibra ak fi ko Cheikh bi Fall jaarale ak lam ko waxoon ak nam ko defe ndax damay wax ne ba àdduna sosoo ba ja jamono ji ku ne mën naa jàng nag duruskat yi bëri na waaye kuy jàng junniy maraaxim moom mësuñu ko dégg ci sëñ Mor ci ci Baye Mor Ndiaye tomb del képp lañ ko mës a dégg li tax loolu mooy mag ñi dañoo déggoon borom Tuubaa mag ñi dañoo déggoon borom tuba déggin goo xam ne li borom tuba di wax ci mbind mi ñoom dañ ko xam waaw ñu ne tekk nag ànd ak Cheikh Ibra Fall ndax du la sëñ Modou ta waxoon sax ne na ku tedd ki mhm. jëfi Cheikh Ibra lay bind mhm. waaye Cheikh Ibra yi mbindum ku tedd ki lay jëfe mbindum ku tedd ki lay jëfe ndax ndax du mag ñi foofa lañ nekkoon ñoom waaw mag ñi ci gibbu bàyyi Cheikh ne na ca keppaar gee mag ñi dañ fa daan toog yor seen i jukki waaw ginnaaw Cheikh Ibra mhm. mag ñi dañ daan toog di durus rek li tax mooy dañoo xam mbind mi moo tax hmm. ndax ki leen yàlla booleel muy Cheikh Ibra Fall borom Tuubaa bu doon ku ñee xam ñu ne Cheikh Ibra ko xam moo tax lépp lu nekk ci mbindam mag ñi dañ koo xam ndax mbind mi jëriñu dara lu dul tarbiya nit ki mhm. teg ko ci yoonu yàlla ndax Sëñ Tuubaa moo wax ne wa bi kitaabati rabbi rabbi kulla mu taali an la wacci rabbi ci mhm. jaalibatu mbaaxib léegi xasida ki ki koy jàng nag ma ko tarbiyaal mhm. te Cheikh Ibra Fall day tarbiya te mag ñi dañuy tarbiyu moo tax ñu daan jëfandikoo xasida yi daan ko jàng mais daawuñu ko jàng sax ngir ngir dara lu dul bëgg a yegg ci yàlla waaye bëgg a ngir gën a bëgg a jege sax daawuñu ko comme léegi jamono toll nga boo bëggee nangam jàng boo kii wut xaalis def nangam boo mag ñi daaw dox jàng rek te sëriñ bi tax ngir sëriñ bi tax waaw moo tax <laughs> buñ ko jàngee pare def ko addi sëriñ bi waaw mhm. moo tax jébbu googu mhm. maam Cheikh dafaa defar ñu bare bare bare bare bare wax naa ko ne bàyyi bàyyi bàyyi mu doon jës bu waaw ndeysaan ak fan yi sax ngi gis ñuy tàmbali ndeysaan di génn par benn benn. waaw ndakate mag ñi ndakate eh, seen i njaboot ñi ngi fi. waaye boo leen tuddee rek. Ah, nga tàmbalee gis na ndakate ah, seen njaboot gaa ngi fi waaye nit ñi duñ duñ leen xam ah, ok saa su ne nit waxuma ne ma kenn ci mag ñi ngeen daan tudd waaw moo jur sama moo jur sama mooy waaw euh, ndeysaan maa ngi ziar ba euh, sëñ Mor Wade moom it xam na la Sall baax boobu fa doom mm-hmm. waaye ab jarbaatam woo na ma fan yi ndeysaan maam Thierno Sall waaw maam Thierno waaye bu du Wade jës moom moo nga gis nga wax noonu mm-hmm. gis naa ay waa këram ay waa këram na ndeysaan am na ko ko ñuy wax euh, sëñ Talla Fall dégg naa mooy taawam waaw am na taawam bu nekk Touba jigéen la Mhm. keroog woo na ma téléphone ne ma boo ñëwee dinaa la wax ci Baye Thierno Sall Baye Moudou Adjis lu baree bari ah, waaw ku ñuy wax Baye Sëñ Mor Wade moom it mi ngi Ndakaaru gii moom it lu baree ah, bari bari bari bari waaw ndeysaan Baye Baye Thierno Sall moom waxañ ne nekk na ci gébbu mhm. ne nee na bis mhm. nekk ci àll bi nii rek nee na ba yàgg nee na Cheikh Ibra wan ko fa mbir nee na mu jàkkaarloo kaaba gi ndax mom kat digganteem ak gis bu dégg nga de nga magni magni wad ñi bu waaw bay mu wad gis bu gis nga len ak gis nga bay mu wad gis bu diw gis bu bàyyi Cerno Sall Nuuru Daarayni ni bay Mor Njaay tomb del jalibatu maraqib manam niñ taxo won khassida yi dal ko duus ta bay ta bay mu wad gis bu moomu waxañ ne bi mi nekk ci soldar ci mhm. xam mom demone demoon na 14 waaw waaw mhm. bay mu wad gis bu waaw waxañ ne bis bu daan jàng gis bi tubaab bi danaan guddi gi bu daan jàng gis bi tubaab bi danaan day làkk naan waaw kii na bàyyi li muy def nag guddi gi dañuy kii na. waaw waaye waxañ ne guddi gam ko defut nag almaa yi dañ leen a bett. Hmm? nee na karoog di leen bombarde nee na karoog tubaab bi daañ ne. Eh, ana ki dan yëkkati baatub laay lay laa bi na jóg wax ndax dafa melni ni lam ko waxut motax gaay gars yi bombardé ñu ne mu ne bërët karok di yëkkati gis bu waxañ ne karok bi mi yëkkati gis bu yi luñ dóor karok ci gaay yi ne na bal yi nee na day wàcce mu jigi tubab bi nan ñi nak ndekk dañuy dédi di dek. mu duwat mom bay cheikh kan nee na ma bay mu duwat gis bu na ko waaw Cheikh ibrahim Fall defaloon na ma guddigu jot dana taxaw ci pays arasé di nee na karoog nee na bu ma ko daan yëkkatim nee na maam Cheikh day bàgg ci njëriñ nanaa doom kooku de xanaa mu duwaat di gis bu la ah, <laughs> kon kooku moom bokk na kenn rek laa xam ci mag ñi la de muy bàyyi mu duwaat di gis bu moom ah, da jàmbaar lool nag hmm. waaw ndax benn mooy fee nga xam ne tey fa fa la bàyyi ko woon te seex bi Fall ne woon li ma leen defal du leen ko defal ci ci kurus waaw nooto noota. waaw lan la da koy def ci suuf nee na leen ci suuf si laa ko def lu ñor barkeel. waaw lu ñor barkeel bëri na loo yóbbu jaww ba sax mu të jar. boo ko indee noota mu jar. waaw xam kan mooy Baye Modou Wade gis. maa ngi siyaar bu baax a baax. Euh, Baye Cheikh Wade Ndiaye. Mm-hmm. dooy Baye Mor mm-hmm. yi la bokk. ndeysaan ndeysaan ah, ak sëñ Ibrahima Wade waaw. macha allah ah, ñoom yooyu yëpp ñoom ñu ngi foofu. macha allah sëñ Mor Ndiaye nag. dëkkub Cheikh Ibra de. Mhm. waaw nu tay Baye Fall lañ. rek lañ gëm. macha <laughs> macha ah, allah waaw Cheikh Ibra rek lañ gëm. macha allah tubarkalla ah, macha allah. waaw euh, kon Cheikh Ibra daal la kenn xamul lu mu doon. kenn xamul lu mu doon moom ndax waaw ndax kàttan gi nga xam ne da ko wanee ci mag ñi nga xam ne dañoo ànd ak moom. Mhm. kàttan googu nag ma nga jóge ca borom Touba. Mhm. ndax kat borom Touba noo ko def mu def la ni la. waaw xam nga Cheikh rek damay wax ne li am ci suñ Touba. bu doon aw sant rek a koy maye. kon du am dara. bu doon mbokkee maye moom du am. ndax amut fu mu mbokkee moom. santut sant wi. Mhm. léegi li tax bi Ibra a am lim am nag. waaw daa jënd rek. daa jënd rek. <laughs> kon ba borom Tuubaa jënd la laaj. ah jënd kay waaw. marchandise am day jaay. Mhm. maye wut day jaay ku ñëw rek jënd la nga jënd rek moom ngay am. tubarkal la <laughs> maa ngi dikkaat. Mhm. dafa am lu sama xel dem te bëgguma ko fàtte. damay kànd rek xam naa yaa ngi ñëw. Euh, Baye Moustapha Seck moo ma mas a dafa am bis. Cheikh Ibra ñëw gébb. mag ñi daaj sikkar si. Cheikh Ibra ngi ci biir ñu ngi sikkar ci ëtt bi. di sikkar ba mu yàgg ndox ma tàmbalee jóg. di taw taw bu metti ba mag ñi mujj mënatu ñoo xam naa dékku ndox mi taw bi. ñu ñaan sikkar si. di seelu. Cheikh Ibra ne ges naa na yaaram bay mu ne faal mu ne ko turu yàlla bi ma doon dégg lu tax déggatuma ko. ñu ne ko ah Fall ndax dañuy seeru taw mu ne ko génn ma toog gi ci biti mhm. mooy sées bi mhm. ñu génn toogu gi sées bi mhm. teg ko ci digg taw bi saam seex génn toog ndox mépp du sotti ko ci kawam mag ñi xool ne seex bi daa ngi tawte ci biti ñu def kenn par kenn di génn def kenn par kenn bi egsee seeru Fall naa ah, doom lu tax ngeen bàyyi turu yàlla bi ñu ne ko ah Fall dañ doon seeru taw mun naa ah, doom bañ a xëm bañ a tooy bañ a xëm bañ a tooy naa bu leen bañ a tooy doom mhm. ndax yomal xiyaam kat dara mun leen lakk ci jahannama kon ba bu leen bañ a tooy ku bañ a xëm Cheikh Ibra nee doo bañ a tooy <laughs> te loolu boo demee ci waxtaanu Mouride Sadiq sax da ngay gis lu mel noonu waaw mooy karoog ba Cheikh Ibra mhm. eh, di jàngale mhm. yónneelu ca borom tubaa ne nee ko nee damaa bañ ñii sawar a lakk leen ah di waaw waaw waaw na ndax ndax xam nga Cheikh Ibra yenn saay mo wax dara fekk na day day ubbi bop nit ñi rek mhm. ngir ñu xam ci Cheikh rafa lan la nek ak wa kërëm moom mhm. ak garantie yi nga xam ne waxtu wu nekk banyar Tuubaa mi ngi dalal xelam ak wa kërëm mhm. ne ko damay bañ ñaar ñi sa wara lak leen boole leen ak kub taalibe ne leen yobul leen ci borom touba waaw ki doomi ciado la waaw ki doomi sëriñ ki doomi la te ñaar yoy nak ño fess de laduna karok borom touba ne leen Ibra Fall diggul lama ko waxon ne leen ko ko and ak mom du dem sawara mooy li nga wax kon mm-hmm. ah, Cheikh Ibra ñi ànd ak moom dañoo am garanti ah, garanti bu wér nag xam nga bis ci njaarim mm-hmm. dafa am ñaari mag mm-hmm. ñoo xam ne ay ci fere yi lañ dañoo bis biñ ñëwee jaayante ak Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa woolu Cheikh Ibra Fall boole leen ak moom waxañ ne keroog bi nga xamee ne ñëw nañ Cheikh Ibra Sëñ Tuubaa boole leen ak Cheikh Ibra Fall ñu nekk ci kër Cheikh Ibra Fall ba yàgg ñu waat ñëw ci pénc mi di waxtaan nee na ñuy waxtaan daañ ne waaw ñun gannaaw dañoo jaayanteeg Sëñ Tuubaa te Sëñ Tuubaa mbooloo mi bari na xam naa bi ñuy jaayanteeg moom sax daa ñëw ñu bu baax a baax a baax te Sëñ tubaa ngi nii dañu dégg Cheikh Ibra ngi nii Cheikh Ibra mii lii mu am Sëñ Tuubaa ko may lu tee ñu dem euh, présenté waat suñu bopp borom Tuubaa ne ko mayu Cheikh Ibra Fall lañ bëgg <laughs> nee na kenn ki daañ ne ko waaw yow kat wax nga dëgg waaye suñ bagage ca kër Cheikh Ibrahima nag nu ñuy def ba mu génn mu ne ko danaa danaa def pexe mu génn nee na ñu dem jël ko nank génn ak moom mm-hmm. ñëw ci ci kër Sëñ Tubaa fekk boroom Tubaa fattu ñu taxaw ñu toog ci buntu ba di xaar mm-hmm. di ndégg di ko keroog bi Sëñ Tubaa ne tëll mag ñi dem nuyu ko mm-hmm. mu ne ana looy tànk yi ñu ne ko ñun kat dañoo ñëwoon di jaayante seek yow Sëñ Tubaa ne ana fu ngeen jóge xam nga euh, borom Touba sans borom da koo xamal loo xam ne nit ki day taxaw ci moom rek muy xam li ne ci yow. Ah, <laughs> loolu nag si Sëñ Touba da koo wàll gaayam yi. ndax moom dafa tabe ci mbiram lu masaana ñëw ci moom ci géej gi rek da koy rafaatale waayam. Ah, waaw mhm. defoon defaloon na ko Cheikh Ibrahima. waaw ndax kun fa yekkun la ko wax. waaw. raxmatala naa ko kun naa kon Mbàkke foo sanc kon fu mu sañc mhm. ah, gis nga eh, eh, gis nga borom tubaa mhm. dafa laa biir ci mbiram mhm. ci lépp nag na meloon ci yonent bi mel ko ci saxaaba yi daal leen tagg waxtu wu nekk guddeeg bëccëg muy tagg yonent bi ah. dem ba yonent bi jël ko boole ko ci boppam mu bokk ci biiram dem ba yonent bi sàkku ca yàlla ngir borom Tuubaa mi pëseefam ak njàmbaaram sàkku ca yàlla ngir mu ñëw doon ab liggéeykatam raama rasulillahi min ilahi kaw nii xaddimahu wa abdallahi kaw nii xabibahu wa abdallahi doon ab soppeem waaye doon ab liggéeykatam nee na Sëñ Tuubaa ne leen ana fu ngeen jóge nee na mu laajaat leen ana fu ngeen jóge ñu ne tekk nag Sëñ Tuubaa laajal leen ko ñu ne tekk Sëñ Tuubaa laajaat leen ko ñu ne ko ah Mbàkke ñun kat ci Cheikh Ibra Fall lañ jóge waaye dañoo toog fii waxtaan xam ne Cheikh Ibra Fall lim am yàgg ko may ñu bëggoon nga defal ñu mayu cheikh ibrahim fall seigne touba ne len bi ngeen di wax ak man la gis ci jéb lo loo ne ku and ak yeen wala ku and ak cheikh ibrahim fall man rek koy am bi ngeen wax ak man la gis ci yeen marque yo xamante ku and ak man wala ku and ak cheikh ibrahim rek koy am kon ki and ak seigne touba ak ki and ak cheikh ibrahim fall nako muntaha gay waxe won ci bobu mu wax ne Eh, suñ suñ Mor mbay Cissé daana ko xàmmee ko. muy ñu ànd ak suñ Touba wala ko ànd ak Cheikh Ibrahima. waaw ku ne rek. waaw ma ne ko waaw. ma gis ñu bind ci jébbal jéggal nañ ko jéggal nañ ko. <laughs> kon eh, Cheikh Ibra Fall mag ñi àndoon ak moom. Mhm. dafa am lu mu leen cërale woon. cër loola. Mhm. nag mooy lépp luñ bëgg rek. Mhm. day am. waaw moom da dalee na teel a sax maanaam de maan fi mu leen yëgal sax. da leen di yóbbu ci dimension yoo xam ne ndax xam sañ sëñ Mor Ndiaye tomb del mhm. dañ ciy dikkaat mhm. bi mu egsee rek mhm. la ko seex bi commencé woon mbir mas naa wax kenn sax na leen moytul leen ma bu tuut boobu seex bi daan na ko wax de am na jëwri ju mas a wax itam na ko moytul moor mi bu la boj bu la bojjee paakam bi doo wér te boo bàyyi moor tuut tànk la yooyu yëpp ay ay ay junju dëgg la xam nga dëgg la mhm. daana wax it ne lumay te lumay xecc bu te ñew and ak reen yi ay mo ray wax de mhm. lu jiñ bu te dem and ak reen waye duma jambar serafa rek ay jambar bi deug la xam nga waaw xam nga Baye Mor Mbengue jiili momu sax ah di waaw <laughs> ah, bokon na ca kangam ya ci waaw maa ngi bax bay baax Baye Baye Malick Sarr waaw moom Baye Mour Sarr mag <laughs> waaw mas nañu ko nettali fii ndeysaan uh, moom momit bayam Baye mhm. Baye Malick sar moomu Baye mur sar mat waaw mo daan yano sayu jalamban wi gebu fal ba njaay ahadi di ko yóbbul borom Touba waaw eh, ci ci ndigalul Cheikh Ibra Fall moom hmm. Baye Mari Sarr moom Baye Mour Sarr Matou Baye Mour Sarr Matou waaw hmm. waaye eh, ba ci Baye Mor Mbengue jili moomu rek hmm. ci kàngam yi la bokkoon waaw waxañ ne bu ma saan romb Cheikh Ibra Fall maam Cheikh ko ah doom Mor Mbengue jil dajale nga de yaa dañ gàngu naa suñ borom yi waaw ah, ah, Mor da waaf da da <laughs> bu ko ñu waaw Mor jil lu ndakate nee na su ma siggee damay dañ gàngu naa yi suñ borom bi xam nga loolu nag ci waa kër Cheikh Ibra Fall rek nga koy gisee maanaam waa kër Cheikh Ibra ñoo doon ñoo xam ne maanaam seenu mbir sax boo koy waxtaanee nit ki nga xam ne xamul dëgg dëgg dëgg day jàpp ne yow mii li ngay wax nii dangay ngay nii rek waaw waaw fekk na lu ci ëpp nag mënoo ko wax neexut xam nag waaw ndax ndax gébb googu mhm. Baye seex kan am na lu baree bare lu bari lu ma ci wax ne ma Beri na ci fi jamono ji amna ko xamne amna ne doon jongante lu reuy lo xamanteni ni karok bam ñewé ci magi gebbu ya mm. nee na karoog fa la ko fekk waaw na dañ ne ko ñun daal mënuñu dara xamuñu dara mm. waye gebbu ge dal mom lora ge dal mom bo fa démé Cheikh ibrahim ko fa samp mm-hmm. lo fa ñaan dana am ah, waaw nee na karoog góor googu damay bañ wax tur bi rek mm-hmm. waye lu reuy la doon sakku nak fi ci réew mi mm-hmm. nee na dafa dem summi gramu ba lonk ko ca loora ga nee na keroog di wër lora gi naan maa ngi wax diw na eh, na daan diw jël bu set wicc ba kenn dootu ko werante <laughs> nee na keroog nam ko waxee woon mm. nee na keroog noonu la amee nee na ba mu jàllee nag mu dellu siwaat sa nag daañ ne am na lu ngeen ma wanoon fii de kon dëkk bi mbir la nee na keroog xéwal gu bari leen fa indil jox leen ko ndax neleen leen ndam lii sama waa ji am yéen ma ko may kon la ah, Cheikh Ibra Fall waxoon ne dëkk bi lépp lu fi waaye ñaan day am waaw kaw gi nangu na suuf gi nangu na suuf gi nangu na ngay dellusiwaat rek waaw <laughs> waaw kaw gi nangu na <laughs> suuf gi nangu na mhm. dëkk bu neex a jaamoo yàlla ngi ni dangay wax ne maanaam ñiy wér de turu yàlla sax maanaam demoon jébbu sax def ko fa day gën waa xam nga fi ne nii mhm. dafa am lu ma la bëgg a lu ma bëgg a leeral tuuti mhm. xamoon nga ne amoon na fa xaaj bu fa nekkoon boo xam ne day bañ murit <laughs> lu garaaw nag xaaj boo xam ne murit lay bañ jébbu la dëkkoon xaj bi bu gisee murit day daw songu ko mhm. am murit rek lay bañ a gis mhm. saa bu nekk rek mu attaqué donga yi gaa mhm. yi fàq seen yëpp bis xaj bi jekki-jekki ba mu yàgg rek jóge ca pël ga rek attaqué daara ji mag ñi ne bëreet fàq seen yat xaj bi ñëw ba ci pénc mi daal di daal di groupe ñaari bëti woom di batu kenn ca mag ñi ne bëreet na barke seerafal xaj bi jëbbul na xaj bi ñëw ba jege leen am ku japp ci nopp bi jógal ko ci daara ji bu ñuy xewlu nak mhm. ñu wut gal gu baax defar ko ca ay xewalam dal am mhm. añam mhm. bis nak ñuy nuyu ci Cheikh ibrahim ñuy dem ci Cheikh Ibra njaarim yóbbaale xaj bi ñu ko laq ni nak bi Cheikh ibrahim ubbe ngir bañ mu gis ko comme ab kelbu la bëggu ñu Cheikh ibrahim seen ko dal ñuy jamante ak mam Cheikh Cheikh ibrahim wa gebbu naka wa daara ja euh, jekk-jekk ba mu yàgg rek Cheikh Ibra dawal bëtam mhm. seen xaj bi mhm. naa na ko ci ànd ak kii mhm. mag ñu ne cenn mu naa na ko ci ànd ak kii kenn ci mag ñu ne ko ah Fall nun danoo ko indaalee Cheikh Ibra naa kii amoon na ci ñu njëkk ña daal di tudd waa asxaabul kahf <laughs> waaw waa asxaabul kahf waaw Cheikh Ibra daal di wax ne tudd Mor Ndiaye dànq moomee Mor Ndiaye tombu del Thierno Sall ab Ablaye Fall Xëriñ Nduur rek mag ña mhm. na ca lañ bokk daana seen xaj baa <laughs> nga ndeysaan dëgg la <laughs> yooyu xam nga uh-huh. mooy li may wax rek uh-huh. Cheikh Ibra neexut a neex neexut a xam xam ndax dafa waxoon ne mhm. dee suma xam dañ may yëg mhm. te lu ñu yëglu lu ne da ngay ñaan ñu yëgal la ko waaye suñu la ko yëgul doo ko dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la xam nga maanaam loolu nga tudd rek mooy loolu day firnde laa nekkoon gaa yu njëkk ya dañoo dellusiwaat waaw ñëw topp Sëñ Tuubaa ak Cheikh ndax tey mag moo tudd wax ne bis am na ku ñëw ci ñeneen di ci daara ji mhm. naan naan diw ca góor yàlla di ko tudd daal ci daara ji mhm. maam Cheikh neen xawma ba xam mi ngi feem nekku fi de waaye xam naa ne daal moom diwa nga fa diwa ngi fi waaw gu góor yàlla googu ñuy tudd ah. nee na moom mi ngi ci biir daara ji waaye ki kenn koy giñ ci mi ngi ci biir daara ji moom waaw dangay bañ a tudd turu kooka waaw kon seex Ibra Fall moom dangay xam ne gaa yu njëkk ya moom dañoo dellusiwaat kérok ba Senghor ñëwé jamono de. Mhm. Cheikh rek gébb la tok wax mhm. <laughs> waaw. waaw. nah mag ñi nee nañ. Mhm. kare yu bopam yi matoon na juróom-ñaar fu jooni kare yu bop mom Cheikh Ibra ak juroom ñaar téeméer ak juroom ñaar fukk ak juróom-ñaar. nee tok na fa gébb bis na juroom ñaar bi de rak na sa borom mako borom sak ci mbeur sàkk daan na mbeur mi nak doom du ma wax tour wi. Cheikh Ibra na waaye fii la bawoo. daal di joxañ daam dëkk bu tuddu fi Gilor. ñu nako waaw. mu ne am na ko fa feeñ tey waaye du jullit Baye Ibrahima ci am na guddi googu wala Senghor ñëw jamono tey tey waaw <laughs> waaw fii dañuy penc dañuy penc waaw xam nga maam yu ci ëpp sax euh, maam doo ko ñimee wax ah, li tax mooy mm-hmm. da koy wax sax nit weddi ko fekk na moom daanaka ak euh, yàqoom sax euh, dafay mujj jige waaw ndax tey <laughs> Baye Baye Thierno Sall bii ngay wax nii. waaw maanaam xam nga Baye Cheikh Kane da koo jege woon lool ndax nee na ma. Ah, dama ko daan fekk ci barabu Serif Assane Fall. ah ok ñuy toog di waxtaan nee na ma bis ànd na ma ak moom nee na mu tëj ba pare di dem nee na ma ànd ak moom nee na muy taw. waaw waaye nee na seetlu naa Baye Thierno saal nee na maa ngi ànd ak moom mi ngi taw waaye gis naa ne ñi ngay ànd waaye am ndox laalu ko taman mi ànd moom maa ngi tooy <laughs> nee mom lolu netal nako ci mom nee ma yit bay cierno Sall mo nako man mi ngay gis dama and ak Cheikh Ibra rek dama and ak mom rek waye anduma won ak mom fenen la newon <laughs> dañ nako nak karok ba yalla ne su jotal len mam adama ci malaika yi ya, nee na ma ak malaika ya seen bir waw bay cierno ko wax de mhm. te watal na ma ci yalla ma lii Baye Sall mako wax wa dogguma la sax mhm. am na ku may seetaan mhm. mi ngay jakarlo ak man duma wax nee na bi ñuy denc soxna su Gawane moom sëñ Touba. maag mhm. Baye Thierno Sall dend fu ñu taxaw. Mhm. Mhm. mais ñu ngi yor benn téere kenn ci sëti Cheikh Ibra yi. mi ngi dund. mais abbu ko téere Baye Thierno na ko ah, xoolal. na ko waaye nag doom bul lañ bët de. xoolal rek. bul lañ bët de ba mu yàgg mu ne ko wala lu la ci réer nga dem ko. nee na kookee. sëtu Cheikh Ibra ne ko waa Baye Thierno. man damaa joti aras sax mu ne ko mënta sa bàyyi ma fa ñu ko yóbbu de. xam nga kooku kuy ah, bàyyam. Ah. sëñ Mourou Moustapha Fall. ci doomi Cheikh Moussa Fall. doomi Cheikh Moussa Fall. <laughs> maa euh, maa ngi ciy dégg sax Baye Moussa Seck. waaw oh, mu ciy nettali wax ne bis am na koo xam ne dafa jaayante Cheikh Ibra yóbbu ko Aras. ah kay waaw mu ah, ñoom ñaar lañ rek. boobu dañoo Cees <laughs> da. dañoo dañoo dañoo dañoo jébbalu rek. ci koor gi. Mhm. kenn ku nekk beru naan. Mhm. ñoom ñaari jébbalu noo daal waaye ku ne naan sama li may wut ci Cheikh ba mu ko amee yàlla naa ko bokk sama mbokku taalibe bi. ñuy ñuy waxante loolu seen biir. Mhm. léegi Cheikh Ibra woolu leen nag dégg leen wóolu leen taf leen fii riñaan ak ñoom bañ demee ba dikk nag ñu xëy beru <laughs> mag mag ñu woo leen ne leen yéen dem ba ngeen di jébbalu ba ngeen jébbaloo fii da ñoo fréquenté toog ak ñun ngeen xëy xëy rek beru xanaa Cheikh Ibra dana yóbbu aras bi <laughs> waaw bàyyi Moussa Wade rek yàlla ko yàlla yàggal ah, amiin amiin amiin amiin barke ba waaw kon euh, hmm. kon ku mën a yóbboo aras moom waaw moom ah. loolu kéemaan la di waaw man de waxuma la ah. ki ma moom kay ñu ngi may seetaan. waaw xam nga fii dañu. te doomi Cheikh Moussa Fall. moo ko ne aal téere Baye Thierno Sall. Uh-huh. Baye Thierno jox ko. Uh-huh. mu koy xool. Uh-huh. mu ne mu ne ko Baye Thierno na ko xoolal te bul lañ bët. wala lu la ci réer nga dem aras laaji ko. kooka ne ko. man Baye Thierno jotiwu mu aras. mu ne ko mënta sa bàyyi ma fa njëkk a yóbbu. Eh, Cheikh Moussa Fall maa la wax loolu. waaw <laughs> ka ko fekk dama nettali mu ngi dund. Uh-huh. doomi sëñ Moussa Fall jàng ci kaw eh, ndeysaan dëgg la dëgg la te Cheikh eh, maa xam te bis ma guddi gaaw uh-huh. soxna su mu sëñ Touba la ñuy denc guddi googu noonu. ci di wax loola. Uh-huh, waaw man su ma doon sa bàyyi ma ko xam nga xam nga mag ñee àndoon ak Cheikh Ibrahima moom. waaw maanaam ñoom aras moom yoo yoonu tool lañ ko defoon. waaye yow dama ndax dañuy dem a ñëw moom di xam la fa xew di ñëw waaw ndax ndax fii am na ci loo xam ne sax bëgguma ci ay jaar waaye bàyyi Cheikh kanama ko nettali ci mag ña nga xam ne seex Cheikh Ibra Fall kenn du ñoom ndaxte képp ku mës a ñëw taxaw ñoo lay yor téye la mhm. ba sa heure dem jat ñu puus la indiwaat keneen teg te loolu ci wax ju wér ne ma la loola bañ koy wax sa a nga woon toog bàyyi Cheikh Ndaw bàyyi Cerno Sall nga fa woon nee na bàyyam ma nga fa woon moom ma nga fa woon nee na keroog diw dafa ñëw ci moom mhm. eh, kilifa la nuyu ko nuyu nuyu mag ñi mhm. dañu leen ah ma fàtte kat na ngeen ma jappal samay hmm bu len ma fàtte nee ma karok sa mama karok yëkkati tankam tek ci suuf dañ na ko la ñaar nangami at da ko dund ci kaw suuf nee na nee le ma tank bi nee karok kilifa ga dafa jënd café gu bari jox len nee kon ñaanal len ma dem waaw waaw kon lolu euh, ci mag ñi ak Cheikh ibrahim Fall mhm. bay Cheikh kan ne ma laaj sama bay bis dama tok bai mhm. na Baye Thierno Sall ñew sama nee na cierno sal Sall ne jugal dem cheikh ndax dañuy jëw mak sa jugal dem. ci nee na ma jug dem. nee na ñu waxtaan waxtaan ba pare bàyyi cierno sal dem nee na ma ñëw ne sama baay wa lu ngeen doon wax mu ne ma ah say baay yu jëw nga na leen lu ngeen ni wax. Mhm. nee na mu ne ko waaw dañ doon waxtaanee mbiri Cheikh Ibra Fall ak ni ñu ànd ak mom ne ko waaye xana xamuna ñun duñ ay nit. nee lolu na loolu mo ne ko ñun ñu and ak Cheikh Ibra Fall duñ ay nit dañu ñëw and ak waaw daañu nag lépp lu war a am ak lépp loo xamante ni ci àdduna bi dafa war a am nee na ñun ñooy ñëw ànd ak moom. la gunge la wan la yoon wi ne nee na delluwaat waaye ñun ñi dañoo dem dikkaat nee na loolu bàyyam ne na moo ko wax. waaw waaw ne daal di wax ne nee na karoog ba bàyyam moo ne ko diw mooy diw. nee nee di ko limal góor yàlla yi naan ko diw mooy diw diw mooy diw diw mooy diw nee na karoog ci mag ñi la koy limal ngan ko diw mii mooy kenn ca góor yàlla ya kon Cheikh Ibra Fall andat me àndat gaya attan gars yi nga xamne dañu demone dikka ñu ñew and ak mom mom ban doole mom la yor. mom kan Cheikh Ibra mom moy kan rek. wa moy kan mom ba gaay nga xamne dañu laqoon ngeermal yalla mhm. dal yalla ba deb dil ci jamono ñew ci Cheikh Ibra Fall di fa sàkkuwaat ngërmal mm. kon Cheikh Ibra Fall mom, mooy kan moom. moy lu kenn xamut waye nak ki kenn xamut ki nga xamne mo def tay ni Cheikh Ibra ki nga xam ne tey moo jël ki nga xam ne kenn attanu ko moom mu attan ko moom mooy borom tubaa waaw kenn du kooku ndax lan hmm. mooy dafa ñëw di mu jaddit hmm. dafa ñëw ngir xettali mbindeef yëpp léegi nag yoon yu faaw mu am nañ ko tracé na ko Cheikh Ibra Fall ne ko wanal nit ñi jikkoy sa mbuy butum waaw palaas yañ war a màggal la say goney toog waaw xam nga Baye Moussa Ka sax dafay am nu muy waxee borom tubaa waxin woo xam ne dafa yéeme lool hmm. la tax Moussa labal Firawna waaw xotti yoonam ya am na nu ko Cheikh Moussa ko waxee. ah Cheikh Bamba nee maa leen joxoon mbootam ya nam ko waxee ca woy ya. waaw waaw maanaam borom Tuubaa moom la kenn xamul lu mu doon moo tax gaayam yi it doo xam luñ doon. ndax damay wax ne koo xam ne ñëwagoo jamono ci Zahir. muy borom Tuubaa. ñëwagoo jamono ci Zahir nii. te moo ne ajaabani rahmaanu xablal xalqi. sabina alfasanatil bil xaqi. koo xam ne ñëwagoo jamono te nee nga diw la tax euh, mu jàll nee na loola maa tax mu jàll moom te booba loola ba muy xew boobu ñëwagoo jamono moo tax mbiri borom tubaa boo ko bëggee teg ci am xel nii rek wala xalaat ne damay nangu damay xalaat soo ko nangu su bu sama xel nanguwut damay bañ <laughs> loolu moom doo mën a xam borom tubaa li tax mooy dafa jëfe-jëfin woo xam ne doo xam Cheikh Ibrahima waaw faxaa li maa yurit googu sa borom di wax daa feeñ ci ñoom ah bàyyi faxal waaw <laughs> waaw xam nga kooku moom loolu mu daan dunde it moom kéemaan la. magu mu moom. waaw. waaw ah, nee na ba ba ba faalu li ma rek. li ma yur rek képp. waaw boo ko mu naa moo ma jaaxal ndax yàlla day def. <laughs> ci coobare daal nee boobu rek ko ci jaaxal. <laughs> li tax muy war na koo ja war naa jaaxal ku ne nag. ndax gannaaw yàlla dafa wax ba pare. wax lii wax lii dañ na nag waaye nag lu ma neex laay def moom. ci yàlla. waaw moo tax maam seen naa ñaar doom mag mu toll ni yàlla. wax ay waxam. teg nga gis gone gu ndaw toog ne li yàlla wax xam naa xam-xamu leen waxee yàlla de te ne làkk de taxaw sa di làkk ba yeggal nga naan lu muy wax waaw yàlla bu waxee nga ne xam naa maam si xam ne na doom téere tey wax la jàng topp tànk la xubit du maye danga riisoo le nag sëñ bàmba mooy janj ci kooka maam si xam ne na doom ay araf waarut kenn wal leen nit ñi jëf ji hmm. maam seex nee na ay araf wu waarut kenn jëf ji nag mooy li seex bi dafaal indi muy nañu war a toppee borom tubaa ndax leral na ko ca gës bu ko ameel borom nit mu faatu koy fay bor ba mhm. te ñëpp am nañ borom topp yonent bi suñ tubaa doon na ko ñëw leen fay si moo tax damay wax ne wax naa ko tij ci ci tijjite ne la Cheikh Ibra Fall lépp lu mu la wax rek da ngay a dem ci alxuraan di ko fa gis man a dem ci xadis di ko fa gis mhm. mën dem ci téere yi mhm. di ko fa am na benn euh, koo xam ne maanaam ci ci kii ni la nekk moom dafay faral di jël waxi Cheikh Ibra Fall yi bu ko déggee day dem ci xaddis yi di ko fa wër. di ko fa wër waaw. waaye lu mu yàgg-yàgg danaan man de leer na ma ne wax ji danaa ko gis day dem ne dem ba yàgg mu ne ma sax wax ja gis naa ko de ndax keroog dafa dégg ci say kàddu nga ne Cheikh Ibra Fall nee na maanaam fa ma ta sellal ndox yëggu fa muy xol ndakate xol mooy nit nee na. waaw nee na mu ne waxi Cheikh Ibra jii danaa ko wër ji ci xaddis. waaw nes tuut mu ne ma am na bayit bu ma jàpp de ma ne ko la mu ne xadd aflaxa man axlasa xalbahu lil iman sama borom nee na ki texe mooy ki sellal xolam ci ngëm yàlla. Hmm. alhamdulilah ndakate kon gars yi Cheikh Ibra Fall neen defar leen xol yi bu ngeen bëggee am yàlla. waaw xanaa xamoon na ñi ngi dégg ñëpp ñuy wax Baye Cheikh dañoo defaru. dañoo defaru xoolal mag ñi ku defaru am na foofu doo fa ne. mag ña seeni xol moo selloon déngal tey li nga wax sànq nekk yéeg ngi toog naan su ma naree làq ngërmal yàlla di ko yéenante ñoom seeni i xol moo moo rafet ah kay xool yi ah, waaw waaye fii jamono ji ne dafa soppiku léegi mm-hmm. waaw léegi nag moom xëccoo xëccoo beeg werante beeg waaw jiiroo bi dafa bari uh-huh. <laughs> waaw moo tax kon uh-huh. eh, jamono ji war nañoo dundaat seex bi dafa soppiku nag waaye waaye waaye lu nu dal ñàkk dégg Seex Ibrahima ko waaw ak ñàkk a topp mag ña waaw di xenc mag ña nan lañ daan doxe ci Seex Ibra ak lan la leen ngërëmal yàlla jaraloon mm. waaw mag ña lan la leen ngërëmal yàlla jaraloon waaw xoolal koo xam ne day gàddaay bàyyi ay këram bàyyi ay njabootam ñu wut si Seex Ibra Faal ngir lan nee na ngërëmal yàlla képp laay sàkku bari na ci ñu baree bare Baye Mor Ndiaye tomb del ba mu duggee ci biir teen ba ba ko Seex Ibra Faal ne génnal lu mu wax du ma génn gannaaw ku amut ku ku daanuwut ku jëfewul ndigal li mhm. wala mu noppalu du am ngërëmal yàlla man naa dee ci biir teen bi ndax ma am ngërëmal yàlla waaw parce que lu te yàlla leen fi indi kon ndekete nee na wut yàlla amul noppalu Cheikh Ibrahima nee na soxna sax uh-huh. ku koy ngoroo soo amee joxe uh-huh. su ma amoon su ma amul bàyyi uh-huh. Cheikh Ibrahima doo yeggale waaw maam Cheikh nee na ab tool ku ko jiwee su ma mënee dem su ma mënul bàyyi tool ba booy <laughs> maa la wax loolu Cheikh waaw mi ngi junj ay ngërëmal yàlla ni nga koy wute di ko wax nit ñi waaye ci wolof la leen koy wax mu leer maanaam firnde li daal mooy mhm. dee wet Cheikh Ibra daal nee na dee wet mhm. waaye xaw a dee muy fi kenn dara maam Cheikh nee na góor yàlla dugge day day jóge ca waar wa dem ca jaag ba jàmbar dëgg waaw jàmbaar dëgg nee day jóge ca waar wa dem ca jaag ba nee na ndax nee na ne ci kaw suuf du kondom kondom na waaw Ibra Fall mu xamul loolu waaw ah yow yàgg nga koo wax de ñaata yoon lañ ko wàcc bari na waaw te waxtu wu nekk gis nga ko mi ngi mi ngi takkaat laxasaayam nekk ci biir daara ji waxañ ne bis tawat na tawat su metti nga xam ne Cheikh Ibrahima wute ak jamono ji mhm. jamono ji ñu bëggee dox adduna sax jamono ji rek ñu ko bëggee lijjante mhm. dañuy dundaat Cheikh Ibrahima Fall ak mag ñem yaroon nan lañ daan dunde nga xam ne lu metti metti doo wàcc ci waar wi waaw lu metti metti metti metti metti moom du dellu ginnaaw moom te jamono ji koo digg mu naan la gor laa du gor Cheikh Ibrahima gor ndax lam waxante woon mu ci di luut ginnaaw waaye ku wax ak yow bis mu dellu ginnaaw fii nii rek moo gën a métti sànc ci yoon wi mhm. waaw yoon wi moom mhm. sànc yi ci gën a métti Cheikh Ibra ko téye dara benn gënu cee métti nag mhm. war may Touba waaw war may Touba moom sànc yi gën a métti ci sànc yi la bokk mhm. dama naan sax mooy gën a métti ci sànc yi ndax Cheikh Ibra daa toll ci di defar jikko xam nga booy sàmm téeméeri xar man ngaa yor wenn yet waaw waaye téeméeri nit nag nit ku nekk ku yetam loolu loolu nii fii may waxe yow nii sànc bi gën a métti ci yi mooy war may Touba te Cheikh Ibra ko téye kon la mu waxoon ba tey génnu ci naka jekk moom daal naka jekk da cay ne da cay ne waaw ba ëllëg waaye du de du mus Seex Ibra moom mhm. lam waxoon ak sëriñ bi mhm. mosu ca génn sëñ jaaji taal mhm. yàlla yàlla du leen gërëm a ba mbaam dañ koy sëf ba dee ñu wut beneen waaw kon xoolal loolu. gis nga kon Cheikh Ibra day moom ba léegi de waxtu wu nekk ñu ngi koy jël ay kàddu di ko sànni ci kawam ngir lan jëf ji muy jëfal borom tubaa di ko yeesalal. ndax ñoom pare nañ ñoom pour dégg lu ne ngir borom tubaa pare nañ ngir lu ne ñu bañ na ko sax dañuy wax ba génne leen sax ci diine ji. waaye ñoom xam nañ ne ñoom ca lañ bokk rek. Mhm. xam nga moo tax moo wax ne Cheikh Ibra bis waxañ ne tawat na tawat su metti mhm. sëriñ bi yëg ko. Mhm. daaj na ciy Cheikh rek moom day luy métti ci ci jëmmam ci man la bàyyi ko waaw ndax liggéeyal ma rek moo ko teg waaw waaye su ngeen demee neen ko yàlla gërëm na ko yonent bi gërëm na ko gërëm naa ko mhm. ne leen ko na ma wuteel tey sondeel su ma liggéeyee rek ci guddi gi muy xattu yi mhm. mbind mi mhm. na ma liggéeyee sondeel su ma taale ngir tagg yonent bi waaye neen ko moom gërëm naa ko na tëdd te noppalu nag waaye Cheikh Ibra la mu waxoon waxtu wu nekk du ca jug moom ndax moom day wane aw yoon moo tax du mën a toog nee na keroog bi ndaw li ñëwee na ko borom tubaa day nee na sant na la gërëm na la nee na bi gërëm na la yàlla gërëm na la mhm. nee na lépp luy metti ci yow ci moom la bàyyi ko ndax liggéeyal ko rek moo la ko teg mhm. waaye nee na gërëm na la nee nga dallu te wutal ko seen na sondeel su mu liggéeyee tey ci guddi gi mhm. maam seex keroog dana bërit daañ naa doom su ngeen demee nee leen sëñ bàmba xanaa damaa bëgg a nax nag moom ma njëkk a xëy ci taggub yonent bi maam ci toolub yonent bi man ma koy njëkk a wàcc ci di ko liggéeyal karok mam Cheikh dafa yuk takat laxasaay yi nee na ci bir àll bi ta boba tawat la Cheikh dafa andal mhm. neena wuti ay gaali sondel and ak mbolom di sikar di ko jébal si borom tuba di yeesalaat ak njébalam kon kooku mom waxtu wu nek mom lam waxon du ca delu ginnaw <laughs> waxtu waxtu wu àdduna jaxasoo Cheikh ibrahim ak wa mom lañ wax mom moom duñ ca dellu ginnaaw lu àdduna métti mett mett métti nag xam naa dinañ ñëw ci maam euh, euh, liggéey yi nga xam ne sëriñ ba nga koy liggéeylu ak général Omar Seck mii waaw njàmbaar gi nga xam ne waaye na ko moom góor la daa sax ñu ngi ci jotal jotaay bi mhm. xam naa foofu la ñuy tëje sax mhm. euh, góor la de ndax koo xam ne yow sànc bi tey di Mbàkke di stade ba woon mhm. te du Mouhamadou Mountakha sant ñu sotti ko daara général Omar Seck de la sëñ am ni Modou Mbenda wax ne ko yaag alali maam Cheikh li jëm ci karo yi mom sasoo sas nañ leen ko li jëm ci karo yi sas nañ leen ko te bo xolé budget karo yi lu gat gat gat bu ëpp 60 millions dana ko man te fi ak ay wër la da na fi 2 mois sax lay wax lépp war na daje lolo kon am na ci war murid yi ndax alali Cheikh Rafal kat kep ko xamne sa bop ngi fete kaw sey tang fete ngi souf ala ci alali Cheikh Rafal ndax kat bu doo woon a Cheikh Ibra Fall kenn du xam dara ci sëñ bi kenn du jëriñ sëriñ ndeysaan dëgg la waaw dëgg la ndeysaan yaa xam sëriñ bi yaa xereñ daawoo weranteekub sëriñ baju bi beri gerem, ngërëm mhm. waaye waanoo yag nga naxee kon lu way xam ci serigne bi rek mhm. sante ko mam Cheikh ibrahim Fall kon jaajëfi mhm. jaajëfi murit bu ne dal ci Cheikh ibrahim Fall moy fexe ba joxañam bi kenn dula ci man kon karo yoy jëm ci stade bi fi ci te general Omar sek taxaw tem ci ndigal liko serigne bi sante moko ko waale li mam Cheikh ibrahim Fall lolou murit bu am lu ci wax waaw lu nek kay mom mom day jambar lo si na Omar ndax gis nga barki dembu la jógee ties eh, ci gamu gi liggey liggey ba wat ca mbar ma di beesal lii ñëwaat teguwaat ci kawam mu fas yéene koo yëgalewaat nag kon loolu moom moom moom ñu ngi ciy soññi ñëpp rek mm-hmm. euh, ngir euh, ngir ni ko sëriñ bi waxee ndax moom gannaaw sëriñ bi mu yëkkati ci làmmiñam mm-hmm. ne Omar Seck li ko sëñ bi di jox euh, ndax li ko nit ñi di jox ci sëñ bi la jëm waaw moo tax mu ne nag lépp lu ko waaye jox mën nga ko jox mm-hmm. kon karo yi nga xam ne mi ngi koy fàttali waxtu wu nekk di ci soññi murit yi nag ndax Cheikh kat sëñ Tuubaa lépp lu muy def sëriñ bi Cheikh manam sant nako waye defal nako lum ko defale waw waaw kon nak maam day beuri go ci mbartaan rek dang ci tek sa loxo rek moy dem bu ko defé bu yeggé nga am sa jajeuf waye serigne bi mom lepp dana ko sottil mhm. kon lolu ñing ci ñing koy fatali mboolem ñi nga xam ñing ñi top yépp rek mhm. dañoo façon ne buñ togué mhm. dañ ci yaatalaale bu baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa a waaw général ku mata a sot waaw waaw macha allah waaye daal moom ñoo ngi sant na na na na na nee nun xam sax xamuñu mënuñu yoruñu mhm. waaye foo pikiroo ñu naan fay doom ndax sëñ bi ñu ko alhamdulilah moo sëñ bi sëñ Cheikh Jëmm ma woon na nga ko sotle mhm. sëñ am ni Moodu Mbenn mi santaat ma na ma na nga ko sotle mhm, loolu moo tax loolu nag mooy liggéey bi te sotle gi mooy sotle ko ci Cheikh Ibra Fall ndax général amul benn itti ci àddina lu may liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall macha allah alhamdulilah lan ngay tàggatoo waaw kay xanaa di gën a santati rek bu baax a baax ci jotaay bu am solo bi nga xam ne moom doon nañ ko waxtaane Cheikh Ibra gébb ak mag ñi ndax waxtaane mag ñi moom mooy la sama borom waxoon ne fépp fu ñuy waxtaane sama gaay yi mhm. danaa fa wàcc ay barke mhm. muy wàcc ci seen kaw ndax wax ne Sëñ wax na ne dafa mas a xëy euh, mu taw taw bu bëri lool Sëñ Tuubaa woote daañu xanaa taw bu bëree nii mosoo leen koo gis ñu ne ko waaw Mbàkke mooy leen li ci gën a yéemu day pepp ndox bu nekk sans borom ab malayka la ko jox mu wàcc ko ci suuf nee na ñu koy yéemu Sëñ Tuubaa nee na am na lu ko gën a yéemu fépp fu ñuy waxtaanee sama mbaax gi ak sama ñoñ yi mooy sama gaay yi malayka yu ëpp yooya danañ ko sàkk ñu tiim leen ak i barke di leen ko xëpp ba kara ngeen ne pare te Cheikh rek kenn du werante wut ne ci gaay yàlla yi la bokkoon mm-hmm. kon ñoo ngi ñaan sama borom euh, lu luñ fi wax rek mu tasaare ko ci mboolem jullit ngërëmul ngërëmal Sëñ Tuubaa gu sax dàkk nag ñu ngi koy dagaan sama borom defal ñu ko waaye xanaa di fàttali bisub soxna Awa njaay bi nga xam ne bañ fay jógee mm-hmm. ma ma koy soññi naan ma fàttalil ma ko euh, sëñ Mamour bu baax a baax moom it la sees Euh, le 16 lay tombel samedi. waaw ah, foofee ca Touba Mbour Nianing. ziare baax waajur wa soxna Baye Aliou Ndiaye. ak soxna Fatou Ngoma macha allah di la siyaare bu baax di siyaare mboolem wàllam fal gépp nag. Mm. di siyaare bu baax Baye euh, Baye. Euh, Baye Ndiaye. si euh, si Baye Xaadim Ndiaye. ndeysaan macha allah moom it dañ koy topp di roote ci moom lu bare bëri. ci xam-xam sama nijaay si Abdourahmane la. muy alxuraan lu ci lépp moo ñu ko xamal. yàlla sama borom yàggal taxawaay bi ak mboolem ku fii liggéey yëpp rek. Mm-hmm. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala di Ndaw gën yëpp ci daara ji xam nga daara Rahmane suma turasol daara la joo xam ne mm-hmm. ci mm-hmm. moo ko joxoon ngir mu sanc ko ay way juróom itam tàmbali sunu maam Serigne Ndaw taxaw ko ci bu baax a baax ba ni mu fi jugee waaye daara jo Serigne Abdourahmane nekk ci ba tey di jàngale di yar doo nga itam waaye xam ngeen ne itam daara ja a barab ba toll na ndax ndeysaan murit bu am pas-pas rek moo ko tegoon ci loxoom am lu ko ca war a jox nag am na sax lu ca des loolu lépp nag ña ngi cey soññi murid bu baax a baax daar rahman sunatu rasul sëñ Abdou Rahman fii la nekk ci barab bi yor daare alxuraan maanaam émission njàngaan di ko def ci rajo bi di jàmbaar lool alxuraan rek moom masa doon ay yitteem mhm. yaakaar naa ba mu jàngee ba ñëw yoroon na ay diplôme am yoroon ay léppam ba ci ay passeport waroon na génn sax réew mi dem liggéey waaye dañ ko ne toogal nga jàngale alxuraan kon nag kooku eh, am na lu war dongo yi am na lu war murit yi am na lu war jullit ñi ci jëmmam ju tedd jooju nañ ci taxaw temm te sotle ko ba mu am ndam ndax ndamam mooy ndamu alxuraan rek ñu ngi ziar bu baax di jaajëfalaat bu baax ñaanal sëriñ Abdou Samad Mbacke moom sëriñ son yi bu suñu borom bàyyi ko fu mu yàgg fi loolu téwér jàmbaar lool murit saadix la ku mën a taxaw murit yi sëriñ Abdou Samad yàlla yàlla na nga fi yàgg téwér Cheikh Mouhamadou Bachir moom sëriñ Abdou ku bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall te mm-hmm. mm-hmm. eh, a moom nuyoo sëñ Fallou Fall Mbor dañ koy teg ci loxoom mooy nijaayam mu jottali ko ko sëñ Fallou Fall mu signal di Fall Mbor mm-hmm. ku waxtaan ak bu tudd signal yiw ñu ngi ziar bu baax signal yiw Fall Mbor njabootam njabootam gépp mhm. tàmbale ko sëñ Cheikh Fall Mboor sëñ mhm. Fallou Fall moom sëñ Aliou Fall Mboor mhm. soxna Mbenn sunu bàjjen moom sëñ Aliou Fall Mboor soxna Mooy moom sëñ Aliou Fall Mboor njabootu sëñ Aliou Fall Mboor gépp njabootu soxna maam sëñ Aliou njabootu sëñ Assane Khady Diaw ñëpp ñu ngi leen di siyaar njabootu soxna Euh, so sunu sunu bàjjen sunu sunu maam sunu lépp sunu xarit sunu yaay soxna jaxate mhm. euh, doomi soxna Aminta Fallu maam Cheikh Ibrahima Fall la ñu koy ziar baax ak sëñ Baye jaxate ñaan yàlla sama borom bàyyi ko ñu ngi leen di ziar bu baax Baye Cheikh Ndaw lay lan lañ invité woon mhm. ngir mu waxtaanal ñu delloo ci groupe bu njëkk ba tey nag mhm. nga ñu fa sori ndax mag ñi Cheikh Ibrahima yi mag ñi murid yi dañ leen a bëgg lool danañ del sawaat ak yow Baye Cheikh euh, moom itam di leen di di di di sàkku murid yëpp ñaanal ko rek sunu sunu rakk la ñoo bokk ñaari wéy wu góor ak jigéen waaye ku baax baax te bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall te am yéene gëstu di jàmbaar lool lu ne Cheikh Ibra jaral na ko day fanaan ci àll bi gébb ak fu ne ngir wut lu mu xam ci maam Cheikh Ibrahima Fall na ko maam maamam sama Baye Cheikh Ndaw daa defee yàlla na yàlla guddal saw fan nu ànd ko ba mu sotti rek ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall bàyyi mur di sant ñëpp tey gërëm ñëpp yaa ngi ko ba daabo ñu ngi koy ñaanal bu baax moom itam lii ak bëggam ci jamono ji sans borom defal ko ko xam naa ne am nag bëgg eh, di ko siyaar bu baax di siyaar ñi nga xam ne ñoom la nekkal ci liggéey bi ñu di ko jàppale mhm. moo cameraman yeeg technicien mhm. yëpp sañ daam Thioune ak mhm. gars yi yëpp ñenn ci réseau yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ah, ah, ah. di ziar sëñ Aline Thioune nag xam naa tey bëgg na ndax dafa bëgg gébbu moom xam naa du ñàkk bis moom dañu def délégation waa Lamfal yëpp dem gébbu sëñ Ibrahima Guèye ñu ngi koy jaajëfal bu baax euh, di ni nga ko waxee sëñ Xaadim Ndiaye Kayar sëñ Iba Thioune Madior léegi ndeysaan mi ngi fa woon di ko ziar bu baax a baax Eh, di ziar nag mbokk yëpp di jaajëfalaat baax suñu àll ba ci liggéey ba ci États-Unis ak mbokk yi waaye di ziar bu baax mbokk yi nekk Suisse nag. Genève eh, moo xam Zurich. Eh, Lausanne Basel ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar. di leen jaajëfal bu baax nuyoo yi ziar yëpp bu ma ko tegee ci loxol sëñ Mourtala Mbuub rek ak sëñ Aline Badara Diop jëwriñu Maam Cheikh Ibrahima Fall nekk foofu ci Senef suñu borom defal leen ak yàgg bu baax soxna Fatou Ba ak mbooleem njaboot gi nga xam ne ñoom la nekkal foofu ñu di ziar bu baax a mhm. euh, ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar te leen beral nuyoo ak ñaan mhm. euh, sëñ Lamine Fall xarit nekk foofu itam ci Genève di jàmbaar lool moom sëñ Moussa Massamba mhm. euh, di ko ziar bu baax moom itam di jàmbaar lool ca ngi leen di ziar ak waa daayira foofu noonu di ziar bu baax moom itam Zurich ak mbooleem njabootu maam Cheikh nga xam ne mooy Baye Fall yi la jiite foofu di ziar sëñ Cheikh Fall Khady Gueye ci Paris di ziar sëñ Salim Ndiaye New York fédération waa Italie bépp ci loxoom lañ koy teg sama borom defal ko tawfeex defal ko mboolem Baye Fall yi nekk Italie yëpp ak mboolem murid jàpp ci liggéey bi foofu mbokk yi nekk Espagne jëwriñ yi ak ziar yi ñoom itam di ziar mbokki Paris nag ak moo xam di ju safar moo xam waa Aulnay Taverne sëñ Souleymane Diouf sëñ Modou Fall Kébé ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di ziar sëñ Safa ak murid yi nekk foofu yëpp bi mi ak bitim réew ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu dem ak sëriñ bàyyi la sëriñ bi acca bisimilah amiin amiin waaw tufli <laughs>